asalaamaaleykum mbokk yi ñu am mbégte di fii di sant buur yàlla boroom asamaan ak suuf seen jotaay senegaal ca kanam Sénégal ca kanam wala suñ réew mi nu ñu koy xalaatalee càmbar li ko gàllankoor boobu ba léegi mënul suqaliku xool yooyu yan la ginnaaw bi ñu xoolee lan moo gàllankoor suñ réew mi ba bi mu moomee boppam ba léegi juróom fukki at ak ñett a ngi nii yu bari jàppandiwul ci réew mi lekk naan dem ak ñëw mbay sàmm napp ñaw menuisier euh, mécanicien maçon corps de métier yi maanaam njàng njàngale doxantu sax jàppandewul si dëkk bi ndax léegi suñu jigéen yi ñu si bari bu ñuy dem xew sax seeni takkaay dañ koy denc dugal ko seen saak ba yegg fa ñu jëm takk ko bu ñuy génnaat bu ñu paree foofu balaa ñuy génnaat ñu tekkiwaat dugal seen saak ndax lan kaaraange gu ñuy tiit loolu yëpp war nañ xool nag nan lañ koy lijjantee ba suñ réew mi door a doon réew mu jàppandi moo xam ni mu neex a nekk la si wàllu kaaraange si wàllu dundin si wàllu nekkin si wàllu njàng si wàllu liggéey si fànn yëpp bés bu nee nag dañ si ànd ak suñuy gan yoo xam ne dañuy ñëw bàyyi seen yitte ngir rek bëgg réew mi bëgg mu jëm ca kanam ñëw di joxe seen xalaat tey ñu ngi si ànd ak sii Sidi Dioum Sidi Dioum moom xam-xamam dafa màcc si wàllu ñaw ñaw la xam ba muy door a liggéey ba léegi ak it am Amdi Moustapha Thiam moom xam-xamam màcc si wàllum menuiserie métallique sëñ Sidi ñu ngi lay nuyu la dalal. jërëjëf sëñ Tounkara ñu ngi lay sant bu baax a baax te yow asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. alekum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatu sëñ Amdi Moustapha Thiam yow ñu ngi lay nuyu ngi lay ñu ngi lay sant Tunkara. Euh, sëñ Sidi yow kañ nga door si ñaw. Euh, bala ma tontu sa laaj bi damay sant yàlla julli ci yante sant sama yooyu jur sant ki ma jàngal métier ba tax nga woo ma fii ñu ko woowee Maysa Gueye mu nga ca Touba. di ñaan yàlla yokk wéram. amiin ak mbooloo mu jullit. amiin man nag 1974. laa wàcc alxuraan sama papa yóbbu ma ci moom muy sama doomu nijaay moom ma jàngal métier jàng naa métier mi 6 ans. 81 mhm. laa beru. 74 ba 81 nga ne si moom. ginnaaw gi nag yow si nga am sa atelier. di di ñaw fii ci Medina. Mhm. Euh, foofu ngay ñawee euh, sëñ Sidi. boobu ba léegi yow ñaw mi. nan nga gis nan nan ban jàngat nga si am ndax boobu léegi dafay jëm kanam dafa dafa maanaam gàllankooru fu mu toll. waaw man nit sama gis-gis yàlla dogal na ba ma xamee xamee ba léegi mosuma génn réew mi te lépp lu wut ci lépp lu nit di wut ci àddina teraanga rek a tax te wax dëgg yàlla man merewu ma ñëw jéppiwu ma ñëw ndax am naa ci teraanga. Hmm. def dina dafa am loo xamante ne leneen li koy bloqué bokk na ci ñun artisans yi ak ouvriers yi. ginnaaw tailleur moom la moom la fi toogal ci métier am tailleur ci tailleur lay wax. Hmm. nit ki avant tout boo ubbee sa atelier di liggéey da ngay respecter sa bopp respecter nit ñi loolu mooy lan faux rendez ak tas yaakaar ak wor bokk na ci li bloqué doom aadama mu doom ah tailleur yi nag ñoom du ñuy respecter rendez-vous de. da cee bari ndax li koy waral bokk na ci euh, xaj na tailleur bi ci jëm boppam dafa organisé wul. Hmm. ñenn ñu mel ni man dañu yaakaar ne njàng njàng mu tubaab mooy jàng. waaye man ngaa jàng sax alxuraan wala arab waaye xool ñi la jiitu ni ñu organiser ak ñi nga xam ne dañoo désorganiser wu nga jëm a fexe ba organiser wu man de ba ma nekkee ci métier ba léegi képp ku may ñawal samay client xam nañ ma ko boo ma kii ma indil benn ñaw ak ki ma indil fukki ñaw ñoom laa yemale soo ñëwee ba wax ak man lu sotti ma bind ba àggal wax la prix damaa la avance code PIN mais euh, boo xoolee euh, artisan yi ñoom ñëpp dañuy fausser rendez fu muy mécanicien bi bi di tailleur bi mm-hmm. lu tax bokk na si benn li nga wax ni ñàkk organisé bi mm-hmm. ñaar bokk na si si mm-hmm. client bu ñëw rek ñu jël xam nga loolu soo koy def da ngay dem ba mun ñoo ñëpp munoo respecté rendez-vous yi ngi leen di jox. waaw loolu li koy waral man sama gis-gis bis ni ki tey jii yàlla dogal na am na ko ñoo xamante joxoon naa rendez-vous ça fait man du ma ñëw ñëw joni joni même su ma amee temps du ma ko nangu parfois nag lépp loo gis am na exceptionnel boo ma joxee sa mu àgg. ma bind na temps la damaa la ñëw bi temps la avance ma temps ndax mën a liggéey sans nga am loo jënd see fourniture mën liggéey sans autant nga xëy bàyyi sa kër loxo sa njaboot mën nañ cee dundee. mais boo xoolee métier bi si boppam. mu toll nii euh, fan la toll parce que xam nga tailleur Sénégal. yàlla may na leen dañu xarañ. tey boo demee si réew yi nga xam ni ñoo ñu wër. sénégalais ñoo fay ñaw. tey ku mel nii Juma Jeng Jaxate Euh, ñëpp xam nañ da doon ñawal ay chef d'état ay jabaru chef d'état ak loolu mais est-ce que boobu ba léegi ñun tey dégguñu ay tailleur sénégalais ñu nekk ay Chine nekk si euh, maanaam place yi gën a mag ay Londres ak yooyu euh, lan moo tax. waaw xam nga tailleur dañoo bari kenn ku nekk nag ak lii sa mébét yi fa nga jëm ci ñaw bi ku mel ni man miy wax ak yow man sama cliente lépp à part sénégalais yi képp ko ma ñawal da nga jóge bitim réew ñëw fi ñu boolema ak yow wala nga ñëw si nit boolema mais am na ñoo xam ne seen itte mooy ñaw lu bari exporté ko yóbbu ko bitim réew di jaay. Mhm. loolu nag man ña koy def gis na ci bénéfice waaye man gisuma ci bénéfice man personnellement ndax defuma ko. Mhm. ndax li tax mooy lenn damay jàpp ne sama mënul kanam man ginnaawam te atelier dafa nekk loo xamante ne borom na ko mën a gérer kenn mënu ko ku dul sa doom ju màgg te yàlla jubal ko. Hmm. waaw sa doom mooy mag yàlla jubal ko ngeen bokk benn vision mais ñoo dafa laaj politique ak marketing. Hmm. man mii wax yow jànguma école waaye la may làkk moo leer sax day yeewu. mais ñun suñu tailleur yi wàll woowu politique ak marketing boobu ñoom newuñu si de. ah man maa ngi ci man sama façon boobu personnellement. waaw léegi yow non c'est-à-dire mën nañ ko bañ personnaliser bu ñu xoolee. Ah. globalement tey. Mm-hmm. Mm-hmm. suñu suñu la yow lan nga jàpp ne moom moo gàllankoor tey métier tailleur. waaw li ko gàllankoor mooy métier mi dañ koy jàng ñu bata duñ ko mokkal. Hmm. ndax métier boo ko jàngee ba àggal dafa jaadu nga toog kala ko jàngal nga liggéey ak moom quelque temps. yenn saa yi mu absenté nga remplacé ko fexe ba bu génne à leur absence bu bu wutoo nga mën a fexe ba client bu ñëw nga mën a wax ak moom proposé ko modèle moo xam la bëgg ak lu ma doon fexe ba convaincre ba bàyyi fa xaalis mais xale tey daanaka loolu mënuñu ko yow boo xëyul bu yow nga tës atelier xam ne dërëm du fa jóge jàng bi daal jàngu métier bi moo mokkul. moo dul mokk tey dañuy mokkal ba ne war a jàng na politique bi da ngay gis ko mën a ñaw mais mënut a ak client. Mhm. gis koo xamante mënut a ñaw waaye client bu mu waxal nga ne kii moo fi dàq ñaw. te bu génnee bu la ñawalee lam la ñawal déjà xale yi xam nga dama la waxoon ci njëlbeen la da ngay jàng loo man di jàng hmm. mais njàngam nasaraan mënut a ñàkk ci liggéey bu mën a doon hmm. jàngal alxuraan ba wàcc jàng téere yëpp mais bu bëggee jàng métier bu man a doon hmm. il faut nga def cours de soir wala nga sob di communiquer ni information communication dafa am solo ci ngay xamee lu bëree bëri mais euh, am na si beneen phénomène tamit tey ñu bëri dañuy xëy rek ne si biir koñ bi jékki-jékki rek ubbi seen atelier yi jànguñu métier bi ak loolu am na ci góor ñi am na ci jigéen ñi bëri na si jigéen ñi financement nu ma leen tudd ndax day mel ni kon dama leen am. bët bu jigéen jigéen ñi la ëppee nag. waaw loolu yaa koy wax loolu jigéen <laughs> ah non ah sëñ bi d' accord <laughs> léegi. da gis koo xam ne lay am man la plupart ñooñu ngi tudd ku ma ci ñëwal ba yàgg ma dégg ñu ne ubbi nga atelier dama naan damay xaar waxtu woo jaay machine hmm. waaw ndax léegi mu jaay machine yi. lu ci lu ci bari am na nag ñu ko jàng ba man ko am na ñoo xam ne dañoo bëgg ñaw bi mais jànguñu gérance gestion bi ak gérer xam nga bu fekkee ne benn métier da nga cee dugg ngay fay ñëpp yow amoo leen lay produire. Hmm. amoo ci lan looy lan looy def. Hmm. xanaa client ñëw nga recevoir ko wax ak moom proposer ko ay modèle mais boo boo manqué téye doo ñawati. kon daal bokk na si li gàllankoor métier bi tey hmm. euh, ñàkk xam-xam bu mët si maanaam euh, wàllum tailleur wàllum ñaw beneen bi yëpp ñàkk politique ñàkk communication pour mbir mi dem kan mu ngoog loolu mi ngi ci parce que xam nga tailleur dafa am ñetti matière dafa am tailleur gros fil am tailleur petit fil am tailleur 217 am tailleur simple am tailleur complet mooy ñëw costume bi wàcc sëñ bi son léegi yooyu yëpp nag boo koy jàng dafa laaj temps ak jéem a xam tailleur mais bi ci corps bi ci gën a euh, nekk nag ci coono nekk en rupture bëgg a disparaître mooy tailleur simple. Hmm, lu tax waaw parce simple tey jii boo dem xale ya fa nekk man xale bu ñëwee ci man boo ko doon posé question ne ko loo bëgg a jàng dama naan petit fil wala ma ne lu tax du lu tax parce que dañ jàpp ne moo gën a gaaw. ku bëgg xaalis peut-être moo la gën a mën a may xaalis ba tax na koor yooyu ma la tudd am na ay yoo xamante ne xale bu ko man mu ñëw ci man supposons man nag yàlla dogal man loolu du ko dund mais mu ñëw ci benn teer ne dama bëgg liggéey ñu boole ko moom hmm. ñu waxaale ba d'accord ci benn prix bu ñu liggéeyee trois jours mu ñëw la grand man daal vraiment dama bëggoon ñu waxtaan ndax dama ah, bëgg su ma ñëwee a concentré ci liggéey bi yow boo ko avancé dak ko deux mois troisième mois bu du ñëwati. Hmm. te sax loolu war la. mais kon euh, euh, parce que dafa mel nii fu mu toll nii atelier yi boo si demee. xale yi jàngatuñu métier de. jàngatuñu ko te seen waajur yi jàppalewuñ leen ci ndax ñu école bi renvoyé ñëpp ñun ñoo leen di récupéré ba pare xale ba muy ñëw bopp yi dara du ci nekk. Hmm. dalay yàqal dala lakkal say tusi loolu mu defal la ko. Hmm. bis bu tàmbalee ba daamal bis bu demee ba tàmbalee man dara su xëyee yaayam jox ko benn benn mbuus na ñëwal ma lii. Mhm. man nag sama atelier amul mbuus. Hmm, mooy ñaw ñaw ñaw sa waa kër yooyu nga xam ni doo fay. voilà man ba may jàng métier jàng naa métier sept ans ba beru mosuma ñëwal suñu benn waa kër barke rasulullah. Mhm. ku mas a ñëwal bu ma fayee ba noppi ma jox toile bi ma dugg ma dugg sama toile bu génne ma jox sama patron. mais euh, euh, est waaw mais est-ce que tey yéen euh, ñun. jaadu na maa ngi ziar ku mel ni ñoom Lamine Diassé nga xam ne mhm. ñoom dañ demoon ba France jàng ñaw ñëw tey di di ñaw yu yu maanaam yu yu mucc ayib ah, euh, tey yéen est-ce que tey tolluñu foo xam ne ñun suñu kilifa yëpp tey fii lañ waroon ñawloo waa xam nga li nga wax dafa am solo ndax mu mii nga sol bi nga ñëwee am na koo naan sa mu mi rafet la dëgg la sa jëmm mën naa rafet waaye la ko mottali mu mi ci la bokk dëgg la kon téye daa war a fonk boppam léegi yow am Amdy Moustapha Thiam yooyu yëpp euh, yow yow la mais métier bi moom fan la toll métier mi fii ñu toll tembee bari na ay rëq-rëq. yan la. rëq yi mooy métier mi nañ ko war a jànge jàngeetuñu ko noonu. même problème la artisan yëpp am. pratiquement nit ñi jànguñu métier bi. dañ ciy dugg pratiquement pratiquement seulement aussi nag am na nag fi ñu toll tembe nii gis nañu des frémissements si fas yéene métier mi bënn na mu war a bënne. métier bi yéen est-ce que dina leen dundal. mais bien sûr dina ñu dundal. aslëf. yow sa atelier fu mu ne. di géej ah, taaro yi la nekk. Hmm. mais léegi est-ce que yéen euh, toog ngeen ngeen càmbar ne ñun suñu problème lii yii la. def nañ ko lan la yan mooy problème def nañu ko li si jiitu mooy. ñàkk jàng bi. d'abord l'analphabétisme doon na doon na la nga xamee ni moo bloqué l'artisanat sénégalais ak loo mën a dégg heureusement que monsieur Diouf wax na ko dama ni métier. mënuloo mokk na mu war a mokke te vraiment euh, njàng teguwu sax loolu lu am la parce que ñun suñu organisation bi la ñuy jiite ñun pap depuis lu war a mat huit ans ngi nii ñun dong sans l'apport de personne mhm. ñuy fexe di alphabétiser suñuy maîtres artisans mmh. parce que presque les quatre-vingt-quinze pour cent maîtres yi nga gis yëpp ont été formés dans le temps mmh. donc day am limite pour nga atteindre nag la perfection si on peut le dire mooy il faudrait ñu perfectionner wu. ñu ñu jàng ñu jàng. mais est-ce que yéen kuréel yooyu nga fi lim ñoom URPA ñooñu ñëpp chambre des métiers ñooñu est-ce que am nañ centre de formation yu ñu teg pour jàngal xale yi. métier par rapport à la chambre de métier bu dakaar am na un centre de formation nga xam suñu partenariat avec Koblenz moo ñu ko defoon muy centre de formation bu menuisier. bu ne fan. mi ngi nekk Soudida. solida solida fo mi mi ngi fonctionnel nit ñaa ngi fay dem di jàng. non mi ngi fonctionné clopi clopan mi ngi soox daal waaw mi ngi soox. Euh, parce que aussi dafa ah, am ñaar yooyu am sooxee moom mbir mi soox de. ñaar dafa am foofu euh, tunkara. Hmm. man d'abord damay damay wax rek lenn. sa émission bi daf ma saf li ma safe mooy da ngay dem jusqu'au fond. waaw doo raay raayal. or li ñu tardel yépp dans la politique du Sénégal mooy hypocrisie su fekkee mën naa mën naa wax. hypocrisie mooy naafeq. mooy naafeq. waaw naafeq dafay bëri. dañuy gis ni doxul au lieu nga toog ni doxul kilifa kilifa yee dégg la xam ni doxul ñu jéem koo doxal da ngay toog di raay raay. yow de nee nga doxul. doxul non doxul parce que dafa am foofu lenn métier aussi mënul mokk su fekkee ni yow ma ngi koy yow ma koy jàngale. amuloo ay marché yooyu mën a liggéeyee xale bi di xool. mais nag léegi yéen président nee na dina jël lu tolloog dix milliards surtout yéen menuisiers yi mu jagleel leen ko si commande publique bi lépp loo xam ne état bi mu ngi koy commandé yéen di ngeen ci am at mu ne dix milliards loolu tam baax na. non non c'est très bien parce que mobilier national la. Mhm. mu mobilier national dama see nekk en amont comme en avant. Mhm. parce que quatre vingt yow nga liggéeyal état bi yow. ah mais waaw. léegi mais tuuti. tuuti rek. tuuti kalaxtaan lañ lay jox tuuti kalaxtaan est-ce que maire maire yi fi nga dëkk mais justement nag voilà voilà là où le bas yow da ngay poser les bonnes questions hmm. su fekkoon su fekkee parce que yooyu yëpp li ko ya ko jëkk yokk mooy les marchés publics il faudrait que état bi revoir naka lay joxe les marchés hmm. suñu jëlee le batiment dafa am de gros œuvres dafa amit les corps d'état man caution métallique laay def pourquoi suñuy joxe marché on ne peut pas Euh, sende joxe la gros gros œuvre bi mais pour ce qui est porte ya buntu yaag euh, aluminium yaag yooyu yëpp ñu ñu global ko ñu sone si mais léegi ñoom dañuy wax souvent ne que yéen bon ñoom dañu bugg affaire yu qualité moo tax ñuy dem euh, Italie jëndi wala Dubaï wala china ak yooyu non non mais mais faible complexe la soo yoree des autorités yu complexe ñoom ñooy def loolu autorité dañu complexé waaw bari na si bari na ci nga xam dañoo complexe. est-ce que yéen seen kuréel gi président mos na leen dalal ngeen waxtaan ak moom. déedéet non non non parce que aussi de parce que aussi demandé ko. ministre bi mais mais waaw très bien. par rapport au ministère dafa dinaa la fi wax lenn que li tax man la ñii am naa tuuti si ñoom yaakaar parce que parce que dañoo jëf ñun dañuy ay artisan ñun dañuy xool gis làmb daj mos. Hmm. loo mosut mu mënoo mu mën a wax la mu saf. kon ay wax rek daf ñu téyewul ñun dañuy làmb daj mos su boobaa soo ma nee Tunkara am di Moussa ci lu muy saf man la lii mooy lii lay saf alors depuis quelque temps hmm. def nañu une innovation majeure dans la formation parce que tey jii ñu ngi si la valorisation des acquis de la hmm. de l'expérience muy la les VAE e. comme ñii gis nga les couturiers là hmm. les cons les quinze corps de métier les plus développés au Sénégal couture moo si nekk moo nekk en tête. avec 18 pour cent. Mhm. le métal ñëw avec 10 pour cent. gestes yëpp kon dañoo wàcc sunu suuf mu doon kon loo xam ne tey yëg nga ça ne fait pas un mois l'ancien ministre de l' agriculture. waaw pour cinq milliards de francs CFA. Mhm. ay jumtukaayu mbay. Mhm. muy les semoirs. waaw muy les usines yooyu ñun ñu koy defar muy sunu spécialité. muy muy ma xam loo xamee ni Sismar moo koy defar c'est très bien ay samay nawle ñoo fa nekk di liggéey mais dama ni cinq milliards mën nañoo yëkkati benn milliard bi dugal ko dans l'artisanat sénégalais. la compétitivité kan moo gagné marché boobu. Sismar lañ ko dem jënd Sismar rek pour la nekk c'est une c'est une grosse usine vraiment mi ngi koy liggéey ak yooyu mais nag dafa am des compétences qu'il dans ce pays yu ma yu mën a def exactement. pareil. non cest à xam nga man man dama d'accord si loolu mooy tay su fekkee euh, dañu toll si benn état benn benn étape boo xam ne am na ñoo xam ne dañu soxla ñu jàppale leen pour ñu taxaw soo amee 5 milliards booy euh, booy jënd am na ñoo xam ni mun nga leen si compal loo xam ni dina tax ñoom ñuy développer. dina tax moom ñuy jëm kanam. parce que ñun tey suñu artisans yi am nañ xarañ boo xam ni tey ñun li ñuy wax ay exportation mais yéen tey ñii yàlla waroon dem ay Mali di fa defar affaire yi dem ay Mauritanie xam Mauritanie ñoom amuñu ay menuisier métallique yooyu yéen ngeen dem foofu di ko defar dem fii ay ay Guinée Bissau di leen jàppale tey suñu état waroon na jàppale yéen genre artisan yu mel ni yéen ba corps de métier yooyu ñuy dem di exporter seen savoir faire seen xam-xam seen mën-mën si yeneen régions yi boobu nag day fekk fii ñu couvrir ko ba pare. nii nii nga wax nag. xam xam nga nee nga dugg nga foo xam ne xam naa ne xamuloo ko sa njort rek moo la fa yóbbu mais fi ñu toll tembe muy au Burkina Faso muy au Mali am lu ñu nos éléments yi nga xam ne foofu la ñu installé. ñun ñu nga fay liggéey. di jàngal métier aussi ñoom ñooñu. mais ñun. Hmm. ma bëgg rek wax leen na état bi la compétitivité kenn du ko décréter. dañu koy liggéey. loolu lu am man pour ma jàng. pour sama xale mokkal métier dafay war di xool ni maa ngi liggéey soo ma joxe tey ji mille semoir soo ma ko commandé yi mille semoir hmm. mun nga ko na la ni dans notre organisation muy muy Matam muy Kédougou dañu am ñu ñu dañoo maaye le territoire ba nga xamee ni tey jii tey soo ma ko commandé tey ji soo jëlee dix atelier atelier bu nekk nga commandé ko au moins cinq cent ou six cent semoir jox ko fukki xale bala muy àggal mën nañu former par compétence au lieu comme jàngal métier sept ans yi dafa xewi mhm. en dix-huit mois on peut fukki xale benn atelier fukki xale pour defar uniquement semoire defar uniquement usine defar uniquement ou occidental defar charrette. surtout nag xam nga en dix huit mois. non loolu dafa am solo for forme mesi mesi nit loolu moom mooy indi compétence. nit ki surtout nag artisan Sénégal ne sont pas compétents seen liggéey seet seen wax ju yàqu la. Mhm. non loolu loolu moom lu wér la non yéen da ngeen am xam-xam. mais xam nga qualité mi ngi ñëw surtout si liggéey te surtout si wàllu mbay mi vraiment yéen euh, war ngeen euh, war na euh, état bi war na lëkkaloog yéen. ngeen lëkkaloot ak euh, baykat yi ñu xool baykat yi yan jumtuwaay yu méngoo ak jamono la ñu soxla te yéen ngeen mun ko defar su ko defee ñu jàppale leen ñu xaaree tuuti def suñu critique de texte. Nous avions eu à regarder le communiqué du Conseil des ministres Euh, et euh, beaucoup de fautes avaient été relevées dans ce communiqué, à peu près 75 fautes. Et il y un changement parce que ce communiqué, c'est le porte-parole du gouvernement, Abdoulatif Koulibaly, qui le Mais maintenant, c'est euh, Seydou Gueye, le général du gouvernement, qui le Et c'était une anomalie euh, protocolaire parce que normalement, c'est le secrétaire général du gouvernement qui doit signer le communiqué du Conseil des Alors, euh, ce en date du 13 novembre 2013, euh, est donc signé par le secrétaire général du gouvernement. Mais il fait pire. J'y ai relevé 98 fautes. Une vraie catastrophe. Et euh, bon, je vais passer les fautes de euh, les fautes de typographie. Vraiment, Seydou Gueye euh, et son cabinet ont besoin de mise à niveau typographique. La typographie est importante parce que ce sont les règles de composition et d'écriture euh, qui donnent à un texte euh, de la cohérence, mais aussi qui respectent euh, les règles édictées par euh, l'Académie française, parce que le français, ce n'est pas notre langue. Il y a des règles qu'il faut, qu'il suivre. Par exemple, euh, quand vous dites le mercredi 13 novembre. Novembre, c'est un nom commun, vous n'avez pas besoin de majuscule là-bas. Euh, quand vous dites, par exemple, maladie, couverture maladie universelle, là, vous n'avez pas besoin de majuscule à maladie et universelle. Ce sont des noms et des adjectifs. Un nom maladie, adjectif universel, vous n'avez pas besoin de majuscule. Les Français n'aiment pas beaucoup les majuscules. Quand vous utilisez, euh, quand vous utilisez un nom, si c'est un nom commun par exemple un nom de jour le jour lundi mardi mercredi si ça ne commence pas une phrase c'est juste un euh, un nom commun donc vous avez vous n'avez pas besoin de majuscule alors euh, il y a véritable il y a beaucoup de fautes de euh, de de typographie ici mais plus grave il y a des fautes de de grammaire et des fautes d'orthographe par exemple quand vous dites Le chef de l'État, il a également adressé vifs remerciements aux populations du département de Foundiougne et particulièrement de Touba pour l'accueil très chaleureux. Alors, très, euh, chez les Français, ils mettent un accent grave. Et ici, il n'y a pas d'accent. revenant sur la santé des populations, thème central de sa communication, le chef de l'État a rappelé le programme rénovateur de la couverture maladie universelle. programme rénovateur, qui rénove quoi Hein, peut-être qu'il voulait dire programme novateur, mais programme rénovateur, c'est ici une faute, une faute de sens. Alors, quand vous dites aussi, euh, le chef de l'État invite le gouvernement à engager les voies et moyens rapides d'un fonctionnement des services d'accueil. On dit un fonctionnement optimal des services d'accueil, pas un fonctionnement optimum. Alors, autre faute grave, Naturellement, au-delà des défis liés au management des établissements et structures publiques de santé et à la gestion des ressources humaines, il convient d'optimiser la fonctionnalité de la carte sanitaire et des services administratifs en vue d'une plus grande équité qui permette à chaque sénégal en vue d'une plus grande équité qui permet, pourquoi un subjonctif ici Vous n'avez pas besoin à chaque Sénégalais, alors quand vous dites chaque Sénégalais, c'est un S majuscule parce qu'il s'agit de la personne elle-même. ce n'est pas collé alors que ici euh, ils l'ont ils alors autre faute euh, une tautologie vous dites par ailleurs le chef de l'État a également instruit le gouvernement de diligenter l'application des recommandations de la réforme hospitalière de même qu'un audit financier général des structures et de l'état de la dette hospitalière si vous dites un audit financier ça suppose bien sûr qu'on audite la dette pourquoi vous dites un audit financier l'état de la dette hospitalière. L'audit financier incorpore, bien sûr, euh, une vision, une visibilité sur la dette hospitalière. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Alors, une phrase termine par un point. Même le, à la fin du communiqué, il n'y a pas de point. Le communiqué termine par un point virgule. Je ne pas. Euh, ça, ça ne se fait pas. Alors, autre chose euh, faute grave. Il dit le ministre de la de l'agriculture a le ministre de l'agriculture la, a fait au conseil un, une une communication. Le ministre a fait. A ne peut pas avoir un accent, c'est pas possible. Alors que ici le ministre a fait, il a mis un accent à A. inacceptable. Alors, fait à Dakar le 13 novembre. Donc, j'ai dit 13 novembre, vous n'avez de, de majuscule à Et secrétaire général du gouvernement, vous n'avez pas besoin de majuscule à général non plus. C'est juste ici un adjectif qui se rapporte à secrétaire. 98 fautes le communiqué de Seydou Gueye. Euh, je point d'honneur de lui envoyer ce texte-là corrigé et vraiment qu'il qu fasse plus attention à gérer ce communiqué la sans faute, si c'est possible. Si ce n'est pas trop vous demander, monsieur le secrétaire général du gouvernement, faites des communiqués du Conseil des ministres avec zéro faute et vous avez l'obligation de le faire. Ce communiqué-là, mais demandez de l'aide, appelez des profs de français, appelez des gens qui s'y connaissent en, en typographie, qui s'y connaissent en écriture protocolaire pour éviter vraiment que la risée du monde avec des communiqués qui, qui, une centaine de fautes. À tout de mbokk yi sunu ñaareelu xaaj Sénégal ca kanam ñu ngi si ànd ak Amdi Moustapha Thiam moom moo jiite ñi nga xam ne dañuy yëngu si wàllum ministère métallique fii si réew mi ak it Sidi moom xam-xamam màcc si ñaw mu ne si ñaw depuis 1974 Sidi bu ñu lay laaj tey lan moo mën a suqali métier ñaw lan ngay wax. waaw bokk na ci première chose parent yi seen jëm bopp ñu fonk métier mi bañ a bàyyi sa doom buñ ko renvoyé école muy jógal boppam di wutali boppam xale xale la xamul way juróom bi ko jur dafa am lu ko war ci doomam bu jàngee école ba yàlla dogal sansam amu ci. na waxtaan ak doomam. laaj ko ban métier nga bëgg. mais tamit Sidi est-ce que loolu du problème ñun. ñi ñuy jël di yóbbu si métier rek mooy ñi nga xam ne école bi bëggatu leen. waaw d'accord doy na waar. waaw mais xam nga école bëggatu leen mais ñëpp mënuñu ñu dund ci école bi. déedéet école day nekk loo xam ne filière de base la booy ja tàmbalee. ndax tey jii moo mën di jàng boole ko am tuuti notion ci wàllu ja jàng da la ciy dimbali suñu càmm wax na ko léegi. léegi nag bu fekkee ñu jël la sa waajur man du ma dong benn xale dama naa wool say waajur ñu ñëw toog ma wax leen samay conditions yi xamante ne moom la xale bi mën a def pour mën a mokkal métier bi bokk na ci heure bi ñu koy yee muy xëy di jàng école ba muy jàng bu dul heure booba un peu plus tard ñu yee mu ñëw du ma d'accord xale bi à tout moment bu ñu fay facture courant bu ñu fay facture ndox bu ñu amee lu ñu yóbbante ca dëkk ba mooy dem dama naan loolu d'accord ma ci. kon daal yow bi njëkk mooy responsabilité parents yi ak lan. la ca tegu mooy man sama doom personnel bi bi bi sama taaw. ba mu jàngee métier ba mu jàngee école ba def BFM amu ko dama ko wala ne ko ban métier nga bëgg mais sauf commerce métier laa wax ne ko xalaatal maa ngi ko jur moo naa ko indi ma jox ko deux jours mu xalaat ma ñëw mu ne ma dama bëgg ñu nekk sa côté jàng métier mi ma ne ko xalaat nga bu baax a baax mu ne ma waaw ma ne ko bisimilah ñëwoon ba mu ñëwee am fa trois mois sama grand frère envoyé ko benn portable ma jël ko tëj xel ñaar mënu cee nekk portable la bokk na ci li yàq métier yi Ah. portable yi bokk na ci yàq métier yi téléphone portable portable ci boppam xale yi dañ siy wuyu rek waaw yow duñu wax farata dañu wax sunna xel mënut a jàpp ñaar ñu mën liggéey mënut a am bonut te amoo ci naqar hmm. atelier boo dem sa patron am na téléphone man am naa fixe ba léegi am naa ñeenti ligne portable mais xale day jékki-jékki sa parent soxla ko moom lay woo xale bu indi la portable am nee na wuyu sama papa dama naan maa bañ duma ko wuyu ci téléphone am naa sama téléphone bu ma soxla ma ko kon daal yow bi bi eh, nga ni bi njëkk mooy waajur waajur yi beneen bi moom mooy métier mi. nañ nañ ko nañ ko fulaal faydaal ko ko faydaal ko. Hmm. waaw te tamit aussi. gis nga tey jii du ma situé du ma tudd benn endroit mais ñun suñu métier tailleur bi bu événement jàllee tabaski tam xarit. Hmm. wala korité am na benn marché boo xam ne boo fa demee am na ko fa toog organiser benn affaire day ñëw yor carnet booy day ñëw ne ko man tailleur la place daay wut Massamba ñuy wax mu bind jël numéro téléphone am Ablaye noonu ma ma dem ba noonu. ku mel ni man barki dem dem naa fa ma ñëw ne ko parce que dama jaaxle dama bëgg liggéey liggéey baa ngi ma wër aw ma ñu ma liggéeyal ma ñëw ne ko téyeer laa bëgg mu xool carnet ay eh, diw kaay wax ak kii première chose jàng dafa am solo ci mbir jàng day toll foo xamante ne nit ki yaay jéem a li xale naan sa maayin hmm. xam nga tey jii ñaw dafa am calcul na loo xam ne boo nga jël machine calcul ah loolu de ñaw ñaw xam-xam la calcul xam-xam la ah, yenn saa yi nag am ku ñëw naan ma ay ay analphabète ngeen bu ma ci yàlla xiiree ma bëgg wàcc sama ma naan waaw waaye moo ci yàlla xel mu bëgg a defar sama ma analphabète taxaw nii nga ajusté ko dakk ko solo nit ñi mën koo xool hmm. ñun si ba analphabète ah, intellectuel pire la mais mais loolu loolu lu ah. wér la ah, la léegi nag yow euh, solution yi nga xam itam dafa war a xaar maggale kooku ma lay wax mu mu boole ma benn booy xam nga d'habitude ñun suñu première chose dafa am loo xamante ne vaccin la tudd vaccin par yaar lay ñëwee hmm. yaar si 90 dama koy posé question ne ko booy léegi bu ñu joxe si yaar vaccin nga bëgg ko reconvertir en mètre mètre cent la ñaata mètre lay doon xam nga six yi six fois dix la soixante kon moo war nekk cinq mètre quarante mais mesure partie boo ko waxee duñ ko xam. Hmm. mesure partie duñ ko xam te ñëw dafa am technique. ah ñëw bu dee garaam bu jigéen ji am na largeur bi minimum lu mu war a mën a nekk. ñu bari xamuñu ko. ah mais loolu mooy métier bi jàngatuñu ko jàngatuñu ko. man xam nga man wax na la sept ans yi. mais sept ans yi jànguma ko métier de quatre ans laa jàng métier. trois ans yëpp dama am suma machine sama sama atelier patron. machine boo xam ne maa ko jëlal sama bopp di ko ñawal pendant trois ans. pour rek gën a maanaam di wut sama barke dama daan menace ma koy def. améliorer mais xale defatuñ ko. déedéet mais léegi yow euh, seen seen diggante nag ak nguur gi yéen tailleur yi pour euh, maanaam mu gën a am euh, gën gën a ratax. waaw xam nga lii sëñ Thiam léegi nguur gi am na partie boo xam ne jàppale wuñu ndax dafa am loo xam ne balaa nga xam sa droit da koy jàng mën koo xam te majeure partie ci ñun seen allo soriwul. ci wàllu nasaraan. te jéem ñu ubbi seen xel man mën naa ne jànguma école waaye li ma jàng dama ci am fierté waaye bu démb doonee tey dinaa ci boole nasaraan. ndax am na buntu yu bari yoo xam ne lañ tax ma jëmee ko bokk na ci pour nga mën a exprimer il faut nga xam la ngay wax. bokk na ci xamal ci religieuse bi mais xamal ci wàllu adduna. ñaar yëpp a ànd. ñaar yëpp a ànd. mais tey ji man sax dama koy faral di wax di wax samay ñëw bokkoon ay daayira nit day ñëw di wax man. j'ai bi damay kaf di daraaye su ma ñëwee daayira samay baatu français lay door yenn saa ñu naa ma noonu li nga wax baat na bàyyil français yi mais leen dem ko nag kon doonte ma ko damay damb yàq dinaa damb yàq ba ko mu gis yàq bu man du ma ne kenn mënul dem sans français mais kenn mënul dem sans xam-xam bu wér te xam-xam boobu mun nañ ko jëlee si làkk bu mu mënti nekk mais nga tëju rek ne yow doo ubbeeku si yeneen làkk yi loolu da gàllankoor parce que yàlla moom mooy séddale tey mun na am xam-xam boo xam ni japonais la ko sedd beneen xam-xam mu sédd ko chinois beneen xam-xam mu sédd ko russe kon yow danga war a ubbeeku pour jël loolu yëpp mais yéen tey euh, nguur gi daal yaa ngi naan doon wax ñoom nañu bàyyi sax dem di ñawlu ñu bitim réew yéen ngeen leen di ñawal te nag ñu boole ñu ci ñun tailleur yi yi xam nga dafa am couturier yéen jigéen ñi lañ gën a ah, ñoom ñoom lañ gën faral na ci de ndax marché yi ñoo koy lijjanti ba ci métier seen càmm yi mën si métal gi yi eh. am na ñoo xamante ne ay xam nga courtier lañu xam ma lan lañu Hmm. ñooy li jënd ñoo jox la. yéen président bi mu doon dalal euh, tailleur ñoom Juma Dieng Diakhaté demoon ngeen si yéen. déedéet ndax man bokkoon naa station couture yi ba xam ne Lamine Seye moo ko jiite woon. ak suma benn frère ba tudd Serigne Dioum. waaw ça fait de cinq ans doxatul. te yu mel noonu aussi daanaka ñi koy véhicule di ko doxal dañuy dem bu mujj nag ay perdant la doon. est-ce que yéen yëg ngeen bi président doon dalal. yëguma ko fenn. da ngeen jeeg jékki rek gis rek. est-ce que gis naa ko sax. may jeexale mooy gën a jàjj rek xale yi ak way juri rek ndax man côté boobu laa ëpp lu may waxee daal. Mhm. te dama dégg léegi nga avoir association pour sëñ Thiam yi. mais xam nga loolu toujours fii réew mi dafa nekk loo xam ne man am na sama benn grand moo ci àddina a naqaree samp dara samp dara. Mhm. da ngay jógee bitim réew bëgg a samp benn structure bala moo pare nga lekk sa xaalis te yaakaar na rapport bi ñu bëgg dem génne nañ ko ci li ñu delloo ginnaaw. Mhm. tey jii ñi jiite association yi moom mii daanaka atelier dafa toog lu bari. dangay ngay dem sa temps déjà boo amul xale bu qualifié bul fa ma toogal ndax leer na un mois ngay daw doo am dépense atelier ba tëj. te gis naa ko fi. Ah. moo tax man personnellement sama roq laa toog. yow daal waajur yi. ak xale yi ngay ngay soññ. soññ waaw daal ñu fonk métier. voilà mu wax euh, bu fekkee na may jeex nag mooy ma. dama bëgg da nga da wax ca départ ñun ouvrier yi wala ñun tailleur yi dañoo mën a fausse rendez may lancer sama mbokk tailleur yi nañu respecter seen liggéey liggéey jaamu yàlla benn mag newoon na doomu aadama bu ma liggéeyam na ko gënal jëmmam na la gënal sa ndey ak sa baay na la gënal sa sëriñ ah. soo ko waxee ne koo xamante ne dafa fanatisme mel ni man hmm. boo tuddee sëriñ bi mu yaakaar ne dara tax te ñoo ñëpp ci liggéey nga leen mën a ah, te liggéey mooy jàmm yàlla ah loolu day bi boo teel a xëy guddee wàcc hmm. respecter say mbir am nooy doxale sa liggéey hmm. liggéey nag aussi dafa am sa kër am sa foyer lu nekk da koy séddale àddina dañu lii liggéeyal noppalul jaamul yàlla. ah loolu waaye topp liggéey bi rek bu yàggee da ngay mel ni man too xam dara. waaye daal fonk sa liggéey. fonk sa kàddu fonk say client ah, loolu moom vraiment. man nag euh, damay may danga may baal ma sant leen yéen ñii ndax li ngeen def dama bëgg ngeen yaatal ko métier artisan dafa am problème te ñu bari dañoo xamul man personnellement de am na am naa jikko am naa défaut moo tax maa ngi jéggalu samay client waaye de sama sama défaut bokkul fausse rendez-vous. aywa loolu am na solo yow lan nga jeexalee am na Moussa Thiam. li jeexale mooy lii sëñ Dioum wax l'artisanat a du d'une visibilité te nii ngay def nii dama ne ñun suñu ministère xawma gis nga leen wala gisuloo leen mais war na am un partenariat bu bu war a mën ne exister entre 2S ak le ministère de l'artisanat. Hmm. parce que pour ñun ñu dem. il nous faut une visibilité pour ñun ñu dem war nañ ñuy dégg mm. et puis tey de 2000 à 2012 li ñu dégg diggante 2012 bi ak léegi ñu feeñ fi ñu dégg ñu fi toog nañu 12 ans yoo xam ne dégg nañu fi mm. te artisanat mënul dox tànk ña nga xam ni ñoom ñoo ŋànk mbir ma au sommet nawloowuñ ñu ndokk nag ba nga xamee ni ce nouveau régime si nii ñu gisee di ñu ñuy ñuy participer dans l'élaboration su lépp lu ñuy def suñu ministre dem taxaw man nettali nañ ma ndax dëgg la ou pas je sais pas mais on m'a dit que conseil des ministres janvier 2013 suñu ministre bi nee na nee na nee na Macky Sall vraiment man de eh, dama xaw a xeeb tuuti budget wu artisanat parce que c'est le millième du budget national ñaata la xam nga ko. bu bees bii de. xamaguma ko mais yëg naa ni yuqi nañu ko. te it seen aussi normal soo gisee vraiment soo gisee la tournée que fait le ministre ak yooyu yëpp ak nii nga xam ni nii la ñuy approché ndax daañu ko gor sa suuf wala duñ ko gor loolu loolu c'est un autre problème. Mhm. beneen problème bi monsieur Tunkara mooy nañu Macky Sall dimbali ba nga xamee ni. li ñu xew si douze ans yi nga xam ne am nañ ci huit ministres de l'artisanat nañu dimbali. vraiment na ñu dimbali. affaire bi stable daal. mu stable na ñu dimbali à ce que Mamadou Talla vraiment ñëw na taxaw c' est un technicien parce que moom c' est un ancien de la c' est un technicien entouré de techniciens normalement. day dafa war a réussir nañ ko bàyyi mu liggéey. waaw ah, nor nañ ko bàyyi mu liggéey. au moins lool daal vraiment. je demande au président la République. et je vous demande vraiment humblement que nous nous sommes des artisans. ce que nous croyons c' notre pays c' le développement de ce pays. et ce développement ne peut se passer sans l'agriculture et l'artisanat am mmh. nañu un ministre de l'artisanat on ne le connaît pas beaucoup vraiment mais de la façon dont il gère son département on vous demande simplement que nga ba ko fi aywa loolu leer na ñu ngi leen di gërëm yow am Amdy Moustapha Thiam yow yaa jiite euh, ñi nga xam ñu ngi liggéey professionnel du métal ak it euh, sëñ di Dioum yow euh, ñawkat nga ñu bàyyi leen léegi ak seen jàngat bu njëkk si bés bi mbokk yi tey suñu taxaw seetlu bu njëkk dañu si ànd ak uh, Adja ndey Ngone ndooy Adja ndey Ngone ndooy moom ndeyu daara la fële ca Thiès soxna si ñu ngi lay la dalal. ñu fay. bu ñu la présenté noonu dina la neex. <laughs> waaw. ndeyu daara ndeyu daara gënal lu ma dégg. waaw uh, affaire bi nan la tëddee lu ñuy woowee ndeyu daara lan la leeral nañu ko. waaw. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. Euh, ñi ngi nuyu téléspectateurs yi nga xam ne ñi ngi suivre émission bi yëpp di nuyu di ziar këru diine yi ci Sénégal yëpp di nuyu sëriñu daara fu mu mën a nekk di nuyu ndongo daara yi di nuyu ndeyu daara ñi nga xam ne ñu ngi liggéey lépp seen àdduna yëpp ñu jox ko daara mm-hmm. ñu ngi leen di nuyu ñi leen ziar mm-hmm. di nuyu képp koo xam ne da ngay yëngu ci fédération nationale des maîtres coraniques Euh, awale seen nuyu suñu nuyoo ci président bi di muy Cheikh Tayour Fall. ñu mm-hmm. koy ziar. waaw di ko ziar. Mm-hmm. di niru nuyu bureau exécutif bi yëpp. di nuyu Jamil Ndaw mi nga xam ne moom moo nekk diggante fédération bi ak cellule ndayu daara yi. Mm-hmm. nuyu nga ñëpp de. waaw nuyu naa leen kenn daara moom mooy lan. ndeyu daara ndeyu daara dafa nekk loo xam ne cosaan la woon. ndeyu daara mooy ki nga xam ne dafa jox boppam di investir boppam ci li nga xamee ne. mooy daaral alxuraan mooy ndongo daara parce que man damay wax ndongo daara moom laa préféré wax que ni taalibe je préfère dire ndongo daara. Mhm. waaw euh, ndeyu daara yooyu ñooy ñi nga xamee ne ñoo yëkkati seen bopp jox ko daara jox ko ndongo daara am ci ñoom yiw ak yërmande di leen toppatoo. Mhm. muy seen wàllu dund. Mhm. muy ci seen wàllu cet. muy seen wàllu santé. ci lépp loo xam ne dafa soxal ndongo daara bi rek loolu mooy ndeyu daara. léegi yéen fële si Thiès nan ngeen koy defee. waaw Thiès nag moom euh, dafa nekk comme dafa bokk ci euh, bureau régional bureau nationale bi mhm. euh, bureau national bi moom moo fédéré cellule moom moo créé sax cellule ndeyu ndeyu daara mhm. parce que. bu njëkk da nga daan gis jigéen yoo xamee ne dañuy yëngu ci daara mais kenn ku ci nekk sa bopp ku ci nekk rek boo amee looy jox daara nga dem jox ko sëriñu daara bi mhm. mais avec l'avènement de la fédération léegi ñoom ñu créer ay cellule ndeyu daara hmm. organiser ko ba nga xamee ne région bu nekk département ya fa nekk ñu tëral fa bureau départemental. Mm-hmm. ak bureau régional ndey daa euh, ci fédération bi mu lëkkaloo créer ay cellules ndeyu daara ci gox bu nekk. léegi cellules yi nan la ñuy yëngoo. cellules yi ni ñuy yëngoo mooy ñoom ñooy seet gox bu nekk cellule ba fa nekk mooy gérer daara ya fa nekk. Mm-hmm. moom mooy seet ñaata daara ñoo fa nekk mooy seet daara yooyu. ndax ay daara yoo xamee ne ay internat lañu wala daara yoo xam ne xale yu dëkk ci koñ bi rek ñoo fay jànge di dem. Mhm. walla daara yoo xamee ne ay gan lañu wala ñoo xam ne dañoo dëkk ci dëkk bi ñu jox leen ay doom. léegi daal yéen yaa leen di saytu wàllum xale yi. est-ce que ñu ngi nekkin bi. lekk bi santé beeg santé beeg yëpp ah waaw loolu moom am na solo. Mm-hmm. parce que daara yi euh, dañu jàpp rek ne xale yi dañu fay nekkee. Euh, jaaduwul dañuy nekk si maanaam dañuy xat. Mm. pare mu salte mu tilim duñu lekk bu baax kon bu ñu amee. Mm. ñoo xam ne dañ leen di taxawu si fànn yooyu euh, dëgg-dëgg loolu moom am na solo kon daal jubluwaay bi mooy daara yi nan lay nekkee bërëb yoo xam ni gone yi fay ne di jàng dinañ nekk si anam yi gën. waaw loolu mooy jubluwaay loolu mooy jubluwaay bi. Euh, est-ce que yaa ngeen si jàppante jàppan jàppante ak euh, ñi jiite réew mi ministère yeeg ñooñu parce que loolu tamit ñoom ngeen koy defal. waaw ñoom lañ koy defal. waaye fi mu toll moom loolu ci ressortu fédération bi la. daa fan ngeen jëlee xaalis bi ngeen di. xaalis bi ni ñu koy amee lenn rek la c'est c'est simple ndaxte loo mën a gis ci àdduna rek organisation la ndax ñun supposons ñun suñu cellule ñun. Euh, ak avènement lakk bi amoon Médina fekkoon na ñun ñu defoon suñuy keesi sabili laa ci koñ bi d'accord ñu bu ñu compter dix maisons bu nekk ñu teg fa benn kees dixième maison ba ñu teg fa benn kees kees boobu loo am rek sa yow ak kees gi ak sa borom mhm. yow yaay ñëw daa xam nga ne kees gi ci kër gi lañ ko implanté nga ñëw dugal sa xaalis mhm. am na ay suñu càmmi suñuy borom kër yoo xamee ne aussi ay bonne volonté yoo xam ne bi ñu déggee loolu dañ ko rafetlu parce que am na ñu bëgg investir ci daara mais xamuñu woon fu ñu koy awale hmm. donc ñooñu aussi di ñu ci jàppale dañu laajte fi kees yi nekk dem di ci dugal seen loxo loolu na solo de telle sorte que hmm. euh, loolu bi nga euh, kees yooyu boo ko dajee tey jii hmm. da ngay jàpp benn jour rek ne tey jii ma dimbale daara yi. supposons ñun au mois d' avril passé bi nga xamee ni ñoo ngi dimbale daara yi ci suñu koñ. Euh, joxe nañ fa bu ay saako ceeb la ñuy joxe. Mhm. ay kees si dëwlin la ñuy joxe. Mhm. ay kees si saabu la joxe. mu naan yaa ngi financé seen bopp. ñoo financé si rek maanaam ay initiative yoo leen jël ak. Euh, organisation joxe nañ fa suuf joxe nañ fa ciment. gis nga loolu yëpp si organisation. te tamit si euh, daara yi am na ñoo xam ni tey jàngee nañ daara. Mhm. ñu mel ni ñoom Serigne Mboup ñoom Mor Mati ñoom Moustapha Tall. ñoo ñëpp war nañ si war nañ si jàpp soxna si ban message nga am. man message bi ma am euh, di ko joxe mooy tey jii ñun dañu implanté waañu daara defe naa moo nekk première waañu daara au Sénégal fi mu nekk tey jii. foofu ci Thiès foofu ci Thiès ban quartier mhm. waañu daara bi li ko yëkkati mooy mendicité bi lu ko mën a éradiquer. Mm, yalwaan gi daal na dàkk yalwaan gi parce que yalwaan gi bu ñu tuutalee ndongo daara yalwaan bee tax ñu tuutal ko. Mm-hmm. bu ñu ko sewalee yalwaan bee tax ñu ñu sewal ko di ko diminuer. or que ndongo daara boobu dañ ko waroon valoriser. Mm-hmm. parce que ndongo daara boobu ak sëriñu daara boobu heure boo soxlaa ci koñ muy ku ndax ku yàlla wàññi la dañ naan na imaam bi ndax dañuy takk sëy dañ naan imaam ba ndax dañuy eh, tudd doom dañ naan imaam ba et l'imaam pur produit daara la. pur produit daara la su loon daara imaam bi du taxaw donc ndongo daara bi tey dañ ko war a jox gëddaam jox ko hmm, valoriser ko fullaal ko faydaal léegi waañu daara bi moom lan lan la waañu daara bi ci loolu lañ ko tabaxee ñun hmm. jubluwuñ ci lu dul xale yi daara ñu recensé daara yi ñi nga xam ne moom la ñu am recensé daara bu ci nekk nombre de ta nombre de ndongo ya nga xam ne ñoo fa nekk ñu di leen yakkal seen añ di togg ca waañ wa di ko véhicule di leen yàkkal seen añ di leen yàkkal seen reer. Ah, loolu de am na solo door ngeen ko. fii mu nekk waañ wi ñi ngi ñi ngi ñi ñi nga xam ne ñi ngi ndax kenn ku ci nekk ñun tey kenn ku ci nekk jël nga sa kër ñi mën am doole benn taa benn ndongo benn la jël ñi am euh, doole ñaar. ñi am doole ñett jël ko. ndongo yoo xam sa kër la ñuy ñëw lekkee yow ñaata ndongo nga am man de actuellement am naa trois yoo xam ne ñu ngi sama ñu ngi sama kër. fa la ñuy lekkee fa la ñuy naanee léegi yéen waañu daara yi kañ ngeen koy nar a door. waañu daare bi daal li ñu fas yéene bu ñu yàlla dimbalee ci kàntanam ak yërmandeem li ñu nar mooy au plus tard premier quinzaine janvier dina fekk ñu inauguré ko mais dina fekk ñu doxal ko ba pare kon fi mu toll nii yaa ngeen di woo képp koo xam ne moom Euh, am na yéene. dimbali daara mu ñëw bokk si képp koo xamee ne daal muy jigéen surtout jigéen ñi parce que jigéen ñi ngi yëngu ci loo xam ne jaru ko. Mhm. te nag euh, fi mu nekk lii yëngu bi man dama gëm ne moo jëkk moo mujj. Mhm. yëngu bii dama gëm ne. tey jii moo mën a defar àdduna nit ki waaye moo mën a defar ëllëgam. kon daal yaa ngi woo jigéen ñi maa ngi woo bépp jigéen buy wax ashadu an laa ilaaha illallaah wa ashadu anna muhammadan rasulullah nga ñëw dugg ci fédération dugg ci cellule daara yi. Mhm. parce que tey jii defe naa ne yëngu boobu jël sa alal capitaliser ko def ko ci daara yooyu moo ëpp mucc moo ëpp yiw moo ëpp teraanga Euh, wul def ko ci feneen. Euh, loolu moom am na solo waa Mbour trois yëpp war nañ ñëw euh, jàpp si waa waa Thiès yëpp ñu ngi leen di ziar soxna si lan ngay jeexale waaw léegi nag cellules yooyu du Thiès rek. Hmm. cellules yooyu département cinq département yëpp dañ ko ca implanté. donc cellules uh-huh. yooyu. dafa nekk cellule yoo xam ne mi ngi wër Sénégal. il suffit de le vouloir pour le pouvoir. très bien nga xamee ne dañ koy def nii. buñ ci jàppee jublu si incha allah euh, yalwaan dina fi jóg ah, gouvernement bi li nga xam ne da doon wax naan yalwaan yalwaan bu buñ ci téyee jàpp ci jàppale fédération bi parce que c'est une première fédération bi nit ñi daan nañu dem wuti xaalis au nom des daara photo yóbbu am seen xaalis bénéficier ko personnellement mais pour une première la fédération et venue ñëw bi ñu dikkee def fi benn assise boo xamee ne def fi benn organisation boo xamee ne tey jii képp koo xam ne da nga bëgg yëngu ci daara képp koo xamee ne produit daara nga képp koo xam ne sa fa xol dafa nekk ci daara nga bëgg dimbale daara euh, mën nga ci yëngu ci biir cellule yi. te nag. Mhm. Tunkara. Mhm. képp koo xam ne da nga dimbale daara l'islam nga dimbale. Mhm. koo xam ne da nga dimbale daara. alxuraan nga dimbale bon képp koo xam ne da nga dimbale daara yaa ngi ci yoon wi nga xam ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li mu fi tegoon bàyyi ko fi bon loolu ngay dundal. ah loolu de moom euh, message bu leer la boo xam ne képp kuy jullit loolu bàyyiwu la ginnaaw ñu bàyyi leen léegi ak seen vidéo du jour.

Euh, mondiale, c'était pas la deuxième guerre mondiale, et que à la suite de cette guerre, beaucoup d'enfants traînaient dans les rues, ils n'avaient ni père ni mère parce que beaucoup de parents ont été déportés, en dehors même de ceux qui ont été tués par les bombes. Et c'était une situation très difficile et le professeur Edmund Miner a décidé, avec quelques amis, de créer une association pour recueillir ces enfants qui erraient dans les rues d'Europe. Et à partir de là, l'association s'est agrandie. Euh, L'Afrique a été évidemment leur un des premiers objectifs parce que nous avons aussi des enfants qui euh, n'avaient peut-être pas reçu ces bombes sous cette forme brutale, mais qui étaient aussi dans une situation très difficile. Ainsi, le professeur Herman Meiner et le président Senghor ont décidé de créer au Sénégal des villages d'enfants SOS. Aujourd'hui, ce sont cinq villages d'enfants à Dakar. Kaolac, Louga, Ziguinchor et Tambacounda qui accueille 600 enfants totalement pris en charge de l'enfance à la majorité. Les études menées par SOS Village d'enfants SOS Sénégal ont montré que plus de enfants risquent de perdre la prise en charge de leur famille. Les causes socio-économiques sont les principales. Ces prises en charge sont de tous ordres, alliant paiement de scolarité, bourse, protection maternelle et infantile, transport, suivi et encadrement. Ce qui m'a lié à SOS, c'est surtout l'affection envers ses enfants. Voilà. Et maintenant, ces enfants sont comme les miens, ou peut-être que plus, parce que je passe plus de temps avec eux qu'avec mes propres enfants. Mon seul souhait, c'est qu'ils réussissent dans la vie. Nous avons des structures annexes que nous appelons annexes. Ces structures annexes, c'est quoi C'est les écoles. On les appelle les écoles Hermann Neiner ou souvent, parfois également, il peut arriver qu'on donne à cette école un nom d'un donateur, comme l'école Pierre Crémieux de Ziguinchor. Euh, ces écoles-là, c'est toujours un soutien dans le cadre de la protection du droit de l'enfant à l'éducation. Parce que nous nous sommes dit que nous pouvons intervenir également pour les enfants qui sont en situation défavorisée, si nous mettons en place des écoles de qualité, peut-être que eux qui voulaient peut-être aller dans une école de référence, SOS pourrait faire quelque chose pour ces enfants. Et c'est dans ce cadre que nous avons également mis en place ces écoles qui accueillent effectivement les enfants des villages d'enfants SOS, mais également les enfants des programmes de renforcement de la famille, les enfants de l'environnement qui n'ont pas les moyens peut-être d'aller dans une école euh, privés, cotés, etc., mais que nous pouvons accueillir en leur donnant la même qualité d'enseignement. J'ai eu l'exonération de mon fils pendant deux ans. Quand je l'ai ramené dans le public, il sortait toujours major de sa promotion, et cela jusqu'à son bac. E Aujourd'hui, il est en quatrième année à l'école polytechnique de Thiès. Le foyer des jeunes de Ziguinchor prépare à cette sortie parfois tant redoutée du confortable carcan de SOS Village d'enfants. Une véritable préparation aux dures lois de la vie d'adulte et à la responsabilisation. Euh, le foyer jeunes reçoit des jeunes et nous disons souvent des jeunes en phase de transition parce qu'effectivement la prise en charge est assez proche de celle qui se fait au village d'enfants À la seule différence que qu'au niveau du foyer, nous recevons les jeunes pour un temps maximum de trois ans. Ce qui me préoccupe beaucoup, c'est ma sortie. Mais il faut que je cède la place aux autres. Il y a des enfants qui, ont, qui sont dans le besoin. Fatou, c'est clair, a peur du vide qui peut être en elle à la sortie. SOS Village d'enfants Sénégal continue sa mission envers les enfants qui sont l'avenir de ce pays et lance un appel aux parents sur leur rôle ô combien important pour l'épanouissement des enfants, mais aussi un appel aux responsables de ce pays qui doivent accompagner la nécessité d'avoir pour le futur et le bien-vivre de notre Sénégal par une implication réelle dans le processus éducationnel d'enfants, souvent en rupture, pour ne pas dire en danger. mbokk ñu am mbégte dikk si seen ñaareelu paaju Sénégal ca kanam ñu ngi si ànd ak euh, Fatou Mansour Mbaye ak it Pape Makhtar moom bokk si euh, jiite mouvement boobu ñuy wax les indignés soxna si ñu ngi lay nuyu la dalal. maa ngi leen di fay. Pape ñu ngi lay nuyu la dalal. ñu ngi lay fay. soxna si yow si lan nga yëngu. bon est-ce que dinaa la mën a tontu ci li may yëngu. ba en fait euh, ci ndonop maam lay yëngu. ci ndonop maam. Mhm. maanaam li ñu doon si maam bari na yow lan si li ñu doon si maam nga yëngu. ba du je préfère euh, bañ a wax euh, français ma wax ko ci wolof pour que nit ñi gën a mën a comprendre. Eh, jotaay bi jotaay wolof la. mooy xam-xamu suuf taafus xam-xam bu ñuul. xam-xam bu ñuul. wàllum ay jinne wàllum rab ak yooyu mm-hmm. yoo xam-xam foo ko jëlee mm, ci ndonop maam sa maam nga ko doonee waaw si maam laa ko doon bi nga koy doon nan maanaam da la ko sol wala da nga toog ñu jàngal la ko wala. non en fait li ma mën a xam mooy que ne que depuis ma nekk xale ba léegi euh, j'ai été adoptée par les et j'ai été éduquée par les et j'ai grandi avec eux. jinne yi ñoom ñoo la maanaam si ñoom nga dëkkoon si ñoom nga boo ko ñoo la yar te ñoom nga màggandoon. fan fan ngeen nekkoon ak jinne yi wala nekkoon noonu. en fait euh, li ma mën a xam si monde visible ce que mes parents témoignent mooy que ne que euh, dunduma ak ñoom ndax de réeroon naa benn moment. ñaata ñaata temps nga réer. bon loolu duma ci sawar a wax parce que. Hmm. du ma fekkee jinne yi ñoo la ñëw jël si yaa dem si ñoom. en laa reer ci ñoom. dem ci ñoom waa. 98 ba kañ. ba 98 ba 2001. ba 2001 muy ñetti at yoo xam ne yaa ngi nekk jinne yi. jinne yu góor yu jigéen yu mag yu ndaw. waaye yu góor yu jigéen. mais fan ngeen nekkoon yaa jinne yi. je sais pas y en a Congo Kinshasa Congo Brazza ak euh, Floride. jinne yu nekk Congo Kinshasa Congo ak Floride fële ci Amérique. bon euh, jinne yi nu ñu mel. ah non foofu moom je préfère bañ a hmm. est-ce que bi ngay ñëw am nga jinne yoo àndal nii. bien sûr. je ah man quand je marche je marche avec les djinns je je je suis tout le temps avec les djinns. jinne yi ana ñu. <laughs> bah je est-ce que mun nga ma wan fii jinne yow. bah je sais pas. Ah, yi nga àndal ñoom ana ñu. maa ñu sama wet. lu tax man mun ma leen gis. ah je sais peut-être xëy na dañu duggul ci domaine boobu. Paa Matar yaa ngi gis ay jinne yow mais ñun gëmuñu la parce que jinne yi nga kenn mu kenn gisu la. bah tu m'as pas invité ici pour que nga gëm ma on n'est pas là pour ça parce que man je pas besoin qu'on me parce que moi je crois en Dieu et je crois à Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul donc j'ai pas besoin de croire euh, j'ai pas besoin qu'on me croie non gëmuma la. mais euh, euh Fat est-ce que gëm yàlla gëm Cheikh Ahmadou Bamba ànd na ak xam bu ñuul. Euh, suñu boroom moo ma sàkk sàkk jinne yi donc bu ko neexoon du def ci man loolu yàlla moo ma sàkk sàkk jinne yi kon ku ci nekk am na doomu aadama bu mu bind am na lu mu ànd lu mu la booleel pour mu lay pour ngeen nekk yéen ñaar seen àdduna hmm. donc man jóguma wuti jinne yi ñi ma xam ñëpp defe naa ba ma juddoo ba léegi ci loolu lañ ma xamee. wala Fatou Mansour man sama laaj mooy. est-ce que gëm yàlla gëm Cheikh Ahmadou Bamba méngoo na ak xam-xam bu ñuul bi ngay wax. man sama xol laa yor su may bëgg damay bëgg dama ne sama idole ak sama royukaay mooy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ndax surtout buur Siin laa sama gëm-gëm nag ci suñu borom laa ko teg moom mi ma sàkk sàkk li ma àndal. bon léegi yow jinne yi lan ngay jëflante ak ñoom. ci lan comme lan. maanaam si maanaam seen sa dundin ak sa waaw sa dundin nan ngay jëflante ak ñoom. Hmm, naturel parce que ñoom laa màggandool ñoom laa xam. jinne ñu tudd. ñëw ñu fi boo da ngay bàyyi ba benn ba boo leen invité nga laaj leen ñoom ni ñu tudd. jinne kon man mun naa leen invité. mun nga leen invité ci sa plateau nga laaj leen bu boobaa damay nekk en tant que féticheuse. si yow si yow laay jaar. waaw bu boobaa damay taxaw. wala jinne yi invité naa leen. <laughs> tey man nga invité. no léegi dina dama ni invité naa leen pour ñu ñëw kañ la mën a ñëw. sa dépend boo leen invité ñu ñëw incha allah. yow kañ ngi leen mun indi. boo bëggee. non suba suba mun nañ ñëw. incha allah. kon suba faatu Mansour di indil ay jinne. incha allah bu neexee suñu. ah adduna bi yëpp a ngi lay dégg de. ma suba moom. Euh, bu soobee yàlla plateau exceptionnel Fatou Mansour mbay digg nañu ne daf ñu indi jinne parce que man jinne moo gis kon <laughs> maanaam te yeneen woon na mu seen gis kon daal franchement jinne yi bon ñoom Papi Mbeng di ngi leen caméra nag ñoom vraiment jinne <laughs> suba moom jinne la si plateau bi. jinne laa wax waxatuma jinnentu je pas di waxuma. Hmm. ngay dégg voix jinne kese ñu ne la lii jinne la. mais jinne bi day ñëw toog. jinne nag jinne bi nga xamante ne moom la suñu borom sàkk. waaw Euh, jinne booy bu lay booy dugg si moom damay dégg souvent sénégalais yu bëri naan jinne bi nee na lii jinne bi nee na laa alors que ñun tey ku ci ngelawu jinne romboon nga faatu. Hmm? waaye léegi kon jinne bi bu ñëwee toog fii moom. bokkul. beneen xeetu jinne dafa am ñoo xamante ne. Hmm. Euh, suñu borom moo leen boole ak ñoom. ku mel ni yow. Euh, ak samay morom am na ñeneen ñoo fi ñoo xam ne ñi ngi fii suñu borom da leen booleek ak ay àndandoo. Mhm. tey mënuma gëm ne yaa ngi ak jinne amoo benn empreinte jinne mais man mii am na jinne yu ak man. Euh, bokkul rawan ak jinne bokkul. bon léegi loolu yëpp ñun mun nañ muñ ndax ëllëg bu soobee yàlla di ñu indi jinne mu ñëw toog fii Pamata toog mais léegi yow sa li ngay yëngu nii euh, Fatou Mansour mhm. maanaam loolu yow ak jinne yi nan la loolu mën a suqalee suñu réew mi. bon nu mu mën a suqalee suñu réew mi mooy que ne que dafa dañoo toll foo xam ne doomu aadama yi war nañ xam ne ñoom rek moomu ñu àdduna mm-hmm. parce que yàlla daf ñu sàkk wàccee ñu ci kaw suuf mm-hmm. binduñu ñun ak jinne yi maanaam nous nous on est visible les humains sont visibles les am na ñoo xamante ne les djinns ne sont pas visibles mais ñun ñëpp ñoo bokk ci àdduna donc ñun nañ jël suñu wàll. Hmm. nit ñi jinne yi jël seen wàll. Hmm. mais ñun léegi doomu aadama yi duñu xuus ci wàllu jinne yi. dañuy xuus dañuy xuus ci wàllu jinne. waaw dañoo xuus ci wàllu jinne yi boo ko déggee mooy ñun dañu toog suñu àdduna à chaque fois li neex jinne bi dangay gis ku gisul jinne sax woote ne am na jinne xam nga déjà yaa ngi tooñ comme tey man ma ñëw ne Tunkara maay Tunkara wala jabaru Tunkara kon xam nga tooñ naa la. Jabar Tunkara kay jëflante ak jinne yi de. non bokkul bokkul yow kay jëlal beneen exemple. <laughs> bo non non li nga wax nii dafa am solo ñun dañuy xuus si. ci monde jinne yi te fekk jinne yi xuusuñu si suñu bos. te ñun xuus si monde jinne yi nan nga ñu ko mën a joxe misaal bu mu leer. maanaam dañuy dox ñun suñu heure xam nga suñu borom dafa ne boo leen doxee ba timis bu heure tëdd jot na ngeen tëdd yéen nit ñi. timis dañu war a tëddi. bu bu heure tëdd jotee guddi fu mu jotee ñun dañoo war a tëdd non nit ñi dañoo war a tëdd. kon dinay jóg. Euh, kon guddi gi du pour ñun. c'est pas pour nous. ndax boo déggaan mag yu njëkk ya dañ la naan guddi dafa am borom. mais loolu waxu mag la noonu rek. non wolof la waxu wolof la noonu rek. waaw pas waxu mag am na ñoo xam dañuy liggéey guddi am na ñoo xam ne guddi dañ siy yëngu. Tunkara euh, léegi li ngeen di def li ngeen di def moom yëfu jinne ngeen di def en fait defatu leen yëfu nit. Hmm. on se dit la vérité parce que léegi dafatu leen yëfi nit. Hmm. Sénégalais Sénégal koo gis ma ngay woote jinne di woote rab. boo reetaanee reetaan bu bu yàgg sax ñu ne kii dafa am rab donc yaa ngi tooñ jinne bi. Hmm. man buggoon naa xam exactement ñu expliquer ma lan mooy rab sax en fait. ah loolu nag vraiment yaa ñu ko war a expliquer. yow mi yëngu si yow non ko expliquer parce que man damay dégg. te je crois que tey laa am euh, tey bon yow yaa am occasion tey ma toog si lu ma mës a bañ. mais comme dama am ay kilifa. buñ ma mhm. waxee damay dem fiñ ñu ma orienté. Mhm. mais franchement il beaucoup de choses yoo xam ne dañ may jaaxal. lan nga bëggoon wax yow waaw. Hmm? lan nga bëggoon wax nga ni. comme. maanaam nga ni tey nga soog am oca tey nga am occasion ni ñëw si télé mais yow yan message nga bëggoon jàllale. message yi ma bëggoon lancé mooy que nekk euh, jinne yi mer nañ trop. c'est jinne yi ne Sénégal. mer nañ trop. lu leen merloo. Euh, Sénégalais yu bëri ñoo ko def te aussi yéen télé am ngeen ci part de responsabilité. Euh, luñ def. ndax euh, yéen yéenay mën a invité nit ñi ba ku ci nekk mën a toog ci télé ak rajo naan jinne sàngam ak jinne sàngam. te ci kanam tuuti di ngeen xam ne mer nañ parce que ñu ngi commencé di di di di def comme li ngeen di wax marche yéen seen yéen nit ñi. Hmm. ñu ngi commencé di marche et je crois que ñoom seen marche waaw seen marche seen marche yombul ci yéen. doxu ñaxtu la doxu ñaxtu maanaam ñu ngi dox doxu ñaxtu. fan lañ koy defee. boo xamante non doxu ñaxtu bi di ngeen ko gis parce que je crois que liy gën a métti si nit ñi lay jóge ci doomu aadama yi lay jóge comme lan ñoo non yow li ngay wax nii nag dafa xaw a lëndam tuuti yow nee nga jinne yi dañu mer jinne yi ñu ngi def doxu ñaxtu mais loolu maanaam loolu est-ce que suñu jàmm la ñaxtu mooy que ne que tey xam nga y a combien marché moo lakk marché yu lakk bëri na de temps yi ok ci autoroute bi da ngay romb chaque jour ñi ngi def accident agression te tout le temps jinne yi ñoo koy def jinne ñooy taal marché yi bu baax te des na yeneen pro des na yeneen événement qui viennent yoo xamante ne bu boobaa on peut pas dire que. comme lan comme lan moo nar a ñëw doomu aadama yu bëri dinañ ci mucc. comme lan moo nar a ñëw. non lu bëri am na événement yu bëri yoo xam ne ñu ngi war a ñu ngi ñëw te ci at mu bees bi lay ñëw. yow da ngay gis yuy ñëw. c'est pas gis moi je suis pour kam nga ne porte parole diw. yow porte parole jinne yi nga. man là je suis pour waxal pour wax ñoom seen message liñ ma yónni. bon très bien message jinne yi lan la Fatou su Mbaye mooy que toll nañ foo xam ne jinne nee nañ ils ont pas besoin de sacrifice soxlaatuñu sacrifice lan lañ soxla euh, li ñu soxla mooy que ne que détruire yàq yàq jinne dañu bëgg yàq suñu réew non pas yàq suñu réew du sa réew réew kan la <laughs> réew sa réew la ak réew jinne est-ce que ëppuñ la fi kii sax. mais ñoom kon lu tax ñu yàq. yow moom moo Ndakaaru. déedéet. <laughs> waaw mais jinne yi lu tax ñu bëgg yàq. li tax ñu bëgg yàq parce que defu leen li ñu bëgg kañ ngeen gëj kañ ngeen gëj jox sarax esprit yi kañ ngeen gëj a ndëppal esprit yi. ah yow nag kon ay sarax ak ay ndëpp fa nga féetewoo. wax jàngo non yooyu nag du yoonu sëñ Touba dëkk dafa am nu muy doxee. yooyu moom du yoonu murit moom. waa fekk da nga ne la moom fonkul jinne yi suñ tubaa da doon ndëpp. ma ne la waxuñu la waxul waxu de. waxuñ la ndëpp moom ay du yooyu. non waxuñ la dañ la ne la tey ak lu mu bon bon bon bon dëkk dafa am lu koy sàmm jinne yi ñooy sàmm Sénégal bokk tey bu dara naroon am jinne yi bu ñu influence bu ñu bàyyi woon mu ñëw day ñëw. Hmm. tey bu ñu jógoon pour tukkal àdduna Sénégal day tukki. kon kenn du ko xalaat. mais jinne yi ñooy protéger loolu ba tax mais liy protéger sa dëkk yow jëm ko protéger. mais yow sa wax man lu tax duma dégg nga naan yàlla moo ñu war protéger yàlla moom moo ñu compte yàlla moom moo ñu warul mere mais yow jinne yi rek nga jël affaire yi. waaw parce que jinne laa jàng jinne laa xam ñoo ma jàng. jàngoo diine. jànguma alxuraan tey su ma bëggee def lu nekk je suis avec les esprits ñoo may jàng man mënu ma. wax ci mënu ma wax mënu ma wax ci français tant que jinne bi wax loowu ma mënu wax ci arab tant que jinne bi wax loowu ma. fi mu toll nii jinne bi lan la la wax loo. ci li ma lay wax ni li ñuy waxtaan. maanaam daal nañu moytu dañu merloo jinne yi jinne yi waxuma la ci kanam tuuti novembre bi ñu nekk décembre bi ñu nekk janvier bi ñu nekk événement yu bëri dinañ fi am yoo xamante ne kenn du mun a sauver kenn. yan genre événement. <laughs> mi ngi ñëw. jàppal novembre décembre. waaw wax ñu yow tamit xanaa di ñu di tamit yow boo gisee loo xam ni. danger la lu nar a maanaam gàllankoor askan wi. en tout cas li may wax mooy euh, président bi bu dee mi ngi may dégg. Hmm. moom xam na fi mu rootee woon na dellu fi mu rootee woon ngir askan wi. président Macky Sall dafa root si jinne yi. non dama ne xam na li muy def pour askan wi nekk ci jàmm parce que ñeneen ñi muy laal seen yoon nekku ci. li ngay wax ni leerul de président Macky Sall la fan la rootee ak lan la war a def loolu nga war a leeral tamit. Tunkara dama ne président moom xam na bu baax li muy def pour jàppale askan wi. lan la lan la war a nekk lan la war a moom xam na ko. bu dégloo sama message bi xam na bu baax li muy def pour jàppale askan wi. yow message codé nga ko bu jox fii daal. loolu Tunkara <laughs> yegguma foofu dama ne daal. est-ce que président day jëflante Guinée yi loolu nga bëgg wax. non je Tunkara yegguma foofu. Hmm. non président dafa root si Guinée yi. duma la répondre ci question yooyu. parce que nee nga président xam na fu mu rootee nangam sangam Fatou su yow tam ñëw nga fii vraiment tour ñu lëndëm wax ñu ay wax yoo xam ne leerul euh, am na yu war a ñëw novembre décembre waxoo lan la président xam na fu mu rootee waxoo la. waaw parce que man man xam nga sama dund dama man dama dama bëgg ci sama dund tout ce que je veux les djinns me le donnent donc j'ai pas besoin de faire de promotion ni de faire je fais des cotes je lance des cotes ñi ma mën a dégg ñu ngi may dégg. am nga jëkkër code yi codé ñu ngi may dégg. am nga jëkkër ñi xam sama code bi may wax ñu ngi may dégg. am nga jëkkër. Euh, non j'ai am jëkkër. ah ñu maa ngi koy ñaan yàlla xëy na dina. ah nga j'ai soxla woo ko mais jullit du ne bëgguma ko am. yow ji xanaa jëkkëru jinne ngay am. <laughs> je sais ah, pas nee nga jinne yi ngay jëflanteel fa nga neewoon ak yooyu jëkkëru jinne moom maanaam di nga mën jëflante ak moom kon. waaw mun na am. doomu jinne yi. mun na am. je suis une fille d'esprit c'est normal. hey Fatou Mansour mi de en tout cas li ñu wa nee nga novembre décembre am na ñu fi war a xew. yooyu tamit ba janvier ba janvier waroon nga ñu si jindi nag. comme ça jëndi non déjà gis nga marché ñu ngi ko attaqué donc euh, war nga sóoraale na am na leneen. non mais man foofu àndoon fa gis nga marché Sandaga bi. Mm. jinne taalu ko de xam nga lu ko taal. Mm. waa maire yi dañu jël magasin yi tëj leen ne bu fi kenn dugg magasin yi am ay produits yoo xam ni dañu jékki-jékki explosé <laughs> loolu moo taal marché bi. mais da ngay wax ak ku da ngay wax ak ku ku ku kii dégg yàgg nañ tëj marché te du def loolu donc marché yëpp looloo leen lakk. marché bi Sandaga bi de loolu ko lakk. mooy yeneen yi. yeneen yi ay court circuit yi génn nga nit ñi dañuy xëcc courant jël fiir yi dugal fi génn yooyu mooy taal marché mais hmm, je suis désolé ni mu tegloo métti na de. waaw loolu des na des na ak yeneen fexeel ba bu dara bu boobu amee rek na nga ne kii fii yi raccordé jinne yi daal ñooy taal marché yi. non dama ne l'essentiel ñun ñi ngi dox suñu doxu ñaxtu te soxlawuñu ku ñu récompenser ci lool wala ne toog leen ma jox leen nangam. yéen ñan maanaam bëgguñu. yéen ñan. non bëgguñu mooy jinne yi bëgguñu. yow si jinne yi nga boole sa bopp. man ah, man boo xam ne je suis moitié jinne. Ah. moitié jinne nga yow. oui je suis moitié jinne moitié bon loolu am na solo léegi yow seen mouvement bi les indignés la tudd depuis kañ la. Euh, mouvement bi léegi mu def euh, un an. bon euh, les indignés passé na un an léegi mu def deux ans. waaw les indignés moom xam nañ ni France la juddoo. ah France mouvement boobu ginnaaw bi téere boobu Stéphane Hessel bind. mais Espagne la waaw waaw bon bo waaw daal nag mun nañ mun nañ wax loolu. Mhm. ginnaaw téere boobu Stéphane Hessel bind. Mhm. tudd Indignez-vous téere bu ndaw mais bokk ci téere yi ñu gën a jënd ci àdduna bi. Mhm. Euh, man mi jàng naa ko ah téere bu téere bu am solo bu yee nit ñi si ni àdduna bi nu muy doxee ni daal euh, maanaam daal jàppandewul te mun nañ xool neneen nu mu gën jàppande mais yéen seen mouvement bi nan ngeen xalaatee suñu réew mi ngir mu jëm kanam. bon suñu mouvement bi lu xalaatee suñu réew mu jëm kanam mooy ñu commencer par dénoncer toute forme d'injustice parce que tey jii Tunkara dafa am lenn daal mooy lu jaarul yoon. waaw parce que tey jii. gisoo benn pays bu développé boo xamante ni dafa am en son sein loo xam euh, benn mécanisme boo xamante ni day développer injustice donc tey nga ni dangay ngay lutter contre l'injustice yaa ngi lutter contre le développement. Hmm. yaa ngi lutter du moins pour le développement parce que développement mënul dem te amul. lu jaaru waaw amul justice. boo loolu nag ànduma si. Mhm. parce que gis nañ système yoo xam ni. système yu injuste lu mel ni esclavage système bu injuste te tubaab yi tey. mais système boobu si lañu tabax seen jëm kanam beneen système bu injuste colonisation dem ba gis nga code noir di si nekkoon vraiment Louis XVIII dafa jëloon sax benn maanaam décret ne nit ñu ñuul ñi fa ñu nekk nit ñi coloniser fa ñu nekk waratuñu sol daal mais ñooñu tubaab yi tey loolu moo leen tax ñu jëm kanam. ok naa ci li nga wax nii tubaab yi dañu instaurer injustice ba pare di développer mais seetlul kañ lañu gën a jël. seen euh, développement kañ la gën a accéléré à partir du dix-huitième siècle. dëgg la ba ñu abolire esclavage. Hmm. ba ñu commencé xam ne injustice bi mënul mënul mënoo nekk di di di instaurer injustice ci réew ba pare bëgg sa réew am koom-koom. mais loolu moo leen permettre accumulation primitive de capital bi ñu financer seen développement. mais après dañu def prise prise de conscience. parce que soxlaatuñu woon esclave yi machinisme dafa ñëwoon mais ñun. ñoom bàyyi ñu di ñu jàpp jaam parce que ñun dañu gën a rafet parce que ñun dañu jékki-jékki ñoom ñu am yërmande c' est parce que dañu créer ay xam ni nit soxlaatuñu ay nit. ñu indi machine yi dañu dañu dañuy dem ba beneen sens xam ni. lii ñuy def nii du jëmale as euh, adduna bi kanam. bon d' accord léegi daal yéen da ngeen bugg euh, lépp loo xam ne du yoon ñu jëlee ko fi. mais loolu mooy utopie loolu mënul nekk ci àdduna bi. voilà xam nga ci loolu la ñuy wax. dañuy hmm. ni ku dul xeex ñàkk na ba pare waaye kii xeex mën na gañe ko mën na ñàkk. dëgg la waaye mais bii moom c'est perdu d'avance. non non non parce que adduna bi dafa imparfait. Ah. injustice du lenn lu dul manifestation de l'imperfection humaine. Mm-hmm. nga noot kii nga jël xaalisu kii mais da ngay xool ay banque ni muy demee rek mais tey eh, taux d'intérêt yi ni muy demee mais loolu injustice la. injustice la mais loolu yow mën nga ko fi génne. Euh, nooy def mënuñu fi génne yépp mais dafa am yenn yoo xamante ni dafa nekk ay principe yoo xamante ni dañoo sacro yoo xamante ni mooy comme liberté nit ñi loo xamante ni comme euh, ay démocratie loolu dafa am yoo xamante ni bu taxul ci réew bu ñu ko garantirul réew mi du dem fenn. donc yéen daal da di xeex pour liberté ak démocratie. démocratie voilà ak tamit xeex pour oligarchie jóge ci réew bi oligarchie mooy. Hmm. Euh, jël pouvoir bi di ko. bokk ñoo ma ñoo xamante ni ñoo euh, ay mbokkam la wala ay àndandoom benn groupe bu restreint di gérer ay gestion boo xamante ni réew lëmm la. Hmm. ñu loolu euh, si suñu combat bu gën a taxaw oligarchie moo si jiitu. ah yéen président Macky Sall ngeen bëgg wax dafa jël frère jox ko ay. waaw waaw si ngay hmm. nangu ak man ni tey une politique. se partage comme au sens propre comme au sens figuré des des privilèges du pouvoir ñan la mooy. àdduna noonu la mos tëddee nag. àdduna noonu la mos parce que boo xeexee ak sa parti politique ba jot pouvoir boo ñëwee sa parti da nga leen di mais yow ba ngay xeex ak sa parti politique waxoon ni bu ma yéegee pour sama parti politique la moom moo fi yëkkat slogan am yooyu parti sans euh, la euh, comment dirais euh, le parti man slogan boobu je parce que bu demee ba intérêt parti bi ak intérêt patrie bi. nekkuñu en convergence man damay naan kon parti boobu amul lieu d'être hmm. loolu c'est pas trop réflexion donc daal yéen daal di ngeen indigné wu si maanaam daal yaa ngeen di métitlu maanaam lépp loo xam ne jaarul yoon te da ngeen pour nit ñi suqaliku il faut ñu jaar si yoon. Hmm, il faut mu jaar si yoon parce que nu am développement boo xamante ni jaarul ci yoon. Hmm. tey jii fan yële yaa ngi invité benn nit muy toog fii ngeen di wax si waxu bay bi. mais tey bay bi waruñu wax kenn demal bay ji. tey Tounkara boo doon bay di dawal 4 suba doom euh, doom wax demal bay ji. dëgg la mais baykat yi dañ leen di xool amuñu sax lu ñu dundee. boo demee seen village yi da ngay gis da ngay xam ne ay miettes la ñuy dundee. loolu dëgg la dañ leen jox sax ay vivres de soudure. bu ñu demee ba ay mois de. avril léegi kon kooku wax kenn demal bay ji du ñu dem tey jii man du ma encouragé kenn mu bay xam nga problème bi lan la mënoo bay ba pare ñuy jël sa ay arachide di ko jaay ay. prix boo xamante ni ñoom ñoo koy imposer l'imposition elle est mauvaise en tout non non ñoom imposé wuñ prix nag ñoom dañuy teg benn prix plancher dañ naan kenn warul jënd gerte gi lu yées cent quatre-vingt-dix francs le kilo léegi nag baykat bi mun na ko jaayee deux cent deux cent vingt-cinq deux cent cinquante ba trois cent moo tax keroog ma jaaxle dégg ne dafa am ay euh, ñu dem jëndi gerte deux cent francs gendarmerie jàpp leen mais loolu loolu man xaw ma lu muy tekki. parce que ñoom dañ lay naan euh, kilo gerte gi lii nga ko war a jaay. non non non non foofu dafa am njuumte dama ni. dañuy en plus feeñaa ñoom dañuy joxe benn prix indicatif boo xam dañ koy proposer ne. kenn warul jënd gerte lu yées cent quatre-vingt-dix loolu c'est pour protéger le paysan tey yow mënoo dem jënd gerte cent quatre-vingt-cinq 190 minimum mais nag maximum bi mun na dem ba c' est les euh, c' est la loi de l' offre et de la demande. loolu am euh, gis nga ni nga ko expliqué nii est est noonu la ah, ko expliqué si gendarme yooyu demoon jàpp ji. kooku jëndee non gendarme yooyu man xaw ma li ñu def nu mu tudd franchement. <laughs> man xaw ma baykat yi tamit révolté wu nañu indi indi ñëwu nañu si affaire boobu parce que génn nañu ni kenn du leen jaay euh, comment dirais engrais. ñëw di naan da ngay jaay da ngay ah, jaay da ngay ah, imposer prix ah, à 200 francs donc yooyu dafa nekk loo xamante ni tey jii. Hmm. surtout Sénégal. dafa yéen daal injustice ngeen di métti lu di ko naxaru. na fi injustice jógee na fi jógee. waaw léegi injustice nan la fiy jógee nag yow. Paa Matar injustice nan la fiy jógee mooy commencer par lenn ñu koy dénoncer avec la manière la plus ferme gis nga tey ji sa plateau bi. Hmm. tey xooloo kan laa doon. Hmm. da nga ma invité alors que je jeune. tey commencer gis nga jeunesse bi bu ñu ko associé euh, avec la même rigueur intellectuelle le même savoir dinañ am loo xamante ne mooy un devenir meilleur. Hmm. parce que jeunesse bi tey kenn mënu leen ko romb. Hmm. koo xamante ni mi ngi doogaay dugg par exemple fonction publique nga ñëw fekk si bureau nga ni da nga koy corrompre pour benn ki du ko du ko du ko du ko nangu parce que lan carrière am moo nekk en jeu. Hmm. mais un vieillard boo xamante ni il est à quelques mois de la retraite. mun nga ko corrompre. mun nga parce que lan retraite bu muy touché baaxul. après. deux mois plus tard il va vivre dans la médiocrité il va vivre dans la misère hmm. donc kon loolu nañu war a xoolaat ay tamit am classe politique boo xamante ni dafa dafa euh, dafa dafa désuète hmm. il faut il que ñu changer indi xale yi indi xale yi tamit. Ah, xale yi tamit amuñu expérience pour gérer. réew tam nag léegi expérience da ngay xeex rek am ko Tounkara. Hmm? expérience da ngay xeex rek am mais xale yi dañu war a jàng si wetu mag ñi. non non non non ñoom si ban mag lañ jàngee. gis nga ba ñoom Senghor ñoom Abdou Diouf euh, Abdou Diouf nekk na gouverneur à l'âge de quoi 25 vingt cinq ans waaw. fan la jëlee expérience. Hmm. c'est parce que da parce que temps yooyu amuñu woon assez de cadre. c'est tout contexte yi moo benn. léegi nag suñu cadre yi nii ñoom ñoo dem ba affaire yi da leen dépassé ay Matar Mbow ñu koy jox suñu réforme des lu doy suñu institution mais Matar Mbow la xam si nouvelle génération lan la xam si de moom lan la. Tambo borom xam-xam la nag de xam boobu dafa dépassé. xam-xam 1960 du xam nga la mooy problème bi moom bu muy nekk Sénégal léegi dafa am lu passé mooy millénaire. dañuy jógee hmm. 1900 dem ci 2000 mais mais xam mooy li ñuy jàng li ñoom waxtaan boobu chaque jour dañuy liir xam lu bees di wax ak nit ñi. seen xam-xam boobu je suis désolé bu amoon. tey jii ñoom ñëpp jaar nañ si gouvernement depuis deux depuis 1960 c'est les mêmes têtes ñoom classe politique bi dara changé aussi ñoom ngay gis ñoom ñooy nekk foofu système. boobu daal loolu da ngeen si indigné wu. mais dañ dañ si indigné wu il faut que loolu joge fi. tey jii am na tamit benn indignation yi moom dëgg-dëgg. bëri na euh, dama déglu bi passé Dansokho. RTS RTS. mu ni ma mu ne foofu di wax quoi di il faut que ñu bàyyi justice liggéey man après ma reetaan quoi ma ni waa am RTS Dansokho mii doon toog. il y a mois de cela quelques années de cela dire que euh, justice amu fi dinaan constitution bi dañ koy dañ koy def lu ñuy neex affaire yooyu ah, tey jii moo toog mais ñu nekkoon euh, euh, comment dirais-je tribunal palais de justice ñoom ñoo fa nekkaat ba tey. ah loolu dëgg la. moo woon lu woon woon lan moo fi woon si diggante bi. ah loolu li nga wax ni am na solo parce que vraiment léegi dañuy <laughs> gis nit ñi bu ñu changé position rek discours yi changé te li ñu doon kaas même mbir mi la. loolu ñu nekkoon les cinq singes. léegi ñoo nekk les cinq sages ñu nekkoon les cinq. singes. pendant yi ñu validé euh, candidature. waaw waaw ñoom ñoo nekk tey jii le cinq sages. waaw loolu loolu dëgg la ñi nga xam ne ñu ngi leen doon ŋàññ. léegi nañu ñooñu nañu liggéey. ñoom ñoo fi nekk tey tey jii ba ñoom ñoom ko vraiment boo ko gisee tamit ni mu màggetee noonu. yore yat noonu di dem xam nga kooku tamit. mun na noppalu de mënatuñu mënatuñu ay Moustapha Niass ñoom ñëpp il faut le dire avec force ñoom mënatuñu gérer problème Sénégal problème Sénégal que xam nga la mooy paa yooyu la nag yow tamit Macky Sall bu nekkee jeune ba pare gëmul boppam di jël ay paa yoo xamante ni kenn xamul. non bu wax président gëmul boppam nag yow tamit nag. Paa Matar non yéen nag lii moom waxu indignation la. xam nga président gëm na boppam tamit. xam nga problème bi déjà coalition bu la porté au pouvoir fa la yam parce que vous avez pas les mêmes vous avez ñoom ñëpp dañu am. loo xamante ni dafa doon dàq waa bi. gouverner bien sûr bien parce que tey jii problème ñu ngi dem moom. problème yow ngay toog di defar sa projet pour Sénégal coalition bi nekkuñu fa woon. Hmm. c'est avec tes pairs ngeen toog ngeen ni lii la ñu bëgg bu ñu jotee réew mi. waaw mais moom nag dafa ni ay euh, air boo xam ni da ngay gouverner seul moom nee lool loolu c'est révolu. non mais c'est pas seul c'est pas ah. seul parce que y a le bon c'est le parti c'est la patrie avant le parti bon madame yow nga ni sa message boo loo jeexalee. moom mënul nekk sax li mu wax nii parce que dafa yaakaar nee na bu ñu fi andi woon jeune jeune bu ñu fi mënti andi. Hmm. si àdduna mënoo liggéey sans les esprits pale dafa am na muy doxee. Hmm. mais tu penses que ku dem toog rek mun na la promettre lu ne si àdduna. pale am na esprit yu fa nekk mun na la promettre lu ne si mais. boo demee toog boo demee toog esprit ba nekk pale ngay waxaat. Hmm. donc munul. pale dafa am esprit yu fa nekk benn président mënul la garanti loolu. pale dafa am esprit tontu ci tontu boobu. ci foofu est-ce que palais bi euh, dafa am esprit yu fa ne yoo xam ne. loolu àdduna bi yëpp la. ñoo am ay esprit. bon léegi yow lan ngay jeexalee yan ban ban ban message nga bëgg jeexale ma message bi ñuy jeexalee mooy suba Tunkara bëgg na ji gis jinne yi. suba dañ koy andil ñoom maam. waaw waaw. kon suba jinne suba euh, rendez-vous 11h fii ak jinne waaw ñoom maam wala ngeen déplacer seen caméra. rek non eh, non bul bul bul jéem a lëbëj carte gi. non xëy waxante woon mooy ëllëg di nga fi indi. xëy na boo am naaree andi affaire yi bagage yi mun na yàq yëfu euh, kii. non Fatou xam naa ne sama papa El Hadj moom am na am na. sa papa El fii du fii sama plateau la. suba dañu waxante lu leer bu soobee yàlla di nga fi indi jinne bul commencé nag di jéem a lëbëj carte gi ak di jéem a tuur lëndëm loolu ko nangu de sëñ Mamoun Mbacke dégg nga ko suba jinne yi dañuy loolu moom bu ko si dugal ah, ah? man Mbacke Mbacke ñoo ma yor ah, loolu ca depuis Serigne Saliou la jinne yee ma yor mais Mbacke Mbacke ñoo tax tukkalu ma àdduna ma dal yow mun nga tukkal àdduna déglu ma waaye yow nag yow gune xale bu jigéen bi kii kii sañ na de waaw maay Fatou Mansour Mbaye mun nga tukkal àdduna yow. déglu ma man xaaruma doomu aadama pour mu defal ma lenn tout ce que je veux je l'ai échangé avec les djinns j'ai vendu mon corps pour saa ok. jaay nga sa yaram. pour loolu. koo ko jaay. juste pour le diable. je te pour le diable. laisse-moi dire quelque chose j'ai pas yi ngay def nii dama bëgg nga dal suba da nga bëgg gis jinne dinaa la woon jinne. dee na. mais am na lu ma jaaxal nga ni jaay nga sa euh, corps au diable waa loolu moom doy war de s'il te plaît jàppaleel sa yaram euh, <laughs> bàyyi ma wax président jàppaleel askan wi hmm. sonn nañ trop te euh, mérité wuñu c'est que li leen li leen jinne di def sont pas mérité ça président nan la war leen war a na leen jàppale ci sarax yu bari parce que dafa am sarax yoo xam ne gouvernement bi moo ko war di def chaque année comme lan na koy jox ñi mu yellool ay lan non ay sarax yoo xam ne bés bu demoon ci peut-être mu dem ci lëg daawur comme ni fi Abdoulaye Wade daan def mu dem ci famille lëg daawur laajte ñooñu dinañ ko wax rabu ndakaaru lu muy soxla yaa ngi may dégg. mu demaat feneen laajte ñooñu dinañ ko wax ku ci nekk lu muy soxla yaa ngi may dégg. Hmm. na ko dajale mais lëg daawur mënut a mel mboose mer. kumba ba mer <laughs> day metti Castel mer <laughs> bu ñooñu ñëpp meree marché bi dina metti de. li am solo mooy yàlla bañ mer. marché bi dina metti ay lëg daawul kumba Castel ñooñu moose ñooñu yéen defu leen li yàlla bëgg de yéen chaque jour ya ngeen ni rëkk ca kër Iblis ngeen ne chaque jour ya ngeen ni baax waaw bàyyi ma fi mu ne nii bu ne woon allahu akbar léegi nga am noo def bàyyi ma waaye. nekkoo ci bërëbu eh, kii de suñu boroom fi mu ne nii de yaa ngi ci bërëbu bi iblis. fii nii fii nii <laughs> on se dit la vérité damal tijji alxuraan wax ma fu lii ne li ñuy def nii fan la ne. ah alxuraan dafa ne ni ñuy jokkoo. no ni ñu jokkoo. waaw li jokkoo la. jokkoo àdduna bi nooy jokkoo wee. toog waxtaan yàlla dafa ni maanaam euh, day leen diisoo seen ay mbir. ma ne ma ne xam nga lan la xam la lii yëpp politique la ci àdduna lay yem. du dem du dem suñu borom ah. Hmm. bu doon heure bii daf la waroon fekk comme taal bi suñ Tuubaa nga ca hmm. mais lii du du de. lii bërëbu iblis la. fii nii dama ne du 2S kese li ñuy def lépp ci àdduna pukkari àdduna la. mais Fatouma yow nga ni da parce que yaa ngi wër loo xamante ne iblis moo lay fay alalu iblis lañ lay fayee muy xaalis. Hmm. kii xaalis a ko fi tax a toog. yow moo la fi tax a toog. keneen keneen moo ko fi tax a toog tey jii kii non amul réew mi jëm kanam kii tey bu bu bu ko Macky woo woon léegi hmm. am na mu def ak moom mu fàtte la boo génnee léegi na la réew mi jëm na kanam ndax am na li mu bëgg kee pareil Mm. soxna si intérêt la non non dama ko bëgg wax ne ko. non bul bi foofu loolu. non non exemple yooyu la. moo fi am exemple boobu. bon léegi Fatou Mansour. Euh, mhm. Pamata xaar tuuti Fatou Mansour yow da nga yow tu as vendu ton corps au diable jaay nga sa euh, Iblis mais loolu noo ko mënee def yow. parce que je suis ma wax loolu ma fi wax léegi loolu noo ko mënee def que ñoom laa juddoondoo. ñoom laa yaroon doon nit ku nekk a xam tu as vendu ton corps au diable. oui mais grâce à Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul j'ai retrouvé mon autre corps mon parti humain et je remercie Serigne Touba bi ma boo lekk waa këram ñu dar ma tette ma di ma won yoon chaque seconde. ak di ma tette si àdduna parce que ñoom ñoo ma jàppale ba fu ma mënti dem ci àdduna loolu dinaa ko lijjanteeg sëñ maam non ñoom ñoo ma jàppale ba fu ma dem si àdduna tey parce que li ngay def nii réglé ñëw naan ay eh, da nga jaay sa si sa plateau nga toog te am na lu ma rus mais bu ma rusul woon dara réglé woo boobu doo ko eggali hmm. mais sa plateau nga toog kon looy yilif naa sa ñu la mag ak ñu la magaat mais da nga toog ci plateau moo tax dama lay cëral ndax du ma ànd ak looy def kon looy du ma ànd ak kilifa yu toll ni sëñ Mamour nga ne réglé ba nga may invité dama ne la say parole na nga ko mesurer teg ko pa pour ma mën a xam je pas besoin bu na ma fait pas bu ma yëkkatiloo wala nga may merloo ndax boo ko defee amaan na mun nañ xool mun nañ bañ a xool kóllëre gi weesu yëpp dama la ah, respecté non dama toog ci plateau bi respecté la jox la cër ba ba nga ma invité dama nangu mais ñi ñi ma ñi ñi ma àndal xam nañ ne naru ma woon ñëw ndax tëddoon sama lal mu neex ma trop moo ma gën a loon parce que yaa beaucoup am na sama client yu bëri yoo xam ne préféré wuñ ma ñëw mais dama hmm. ko nangu ñëw toog mais kon réglé woo boobu neneen lañ koy wax waxaatee. non man xam nga lu ma jàpp. Mhm. nit ku jaay yaramam lu diable. war na la tiital ba war a tax doo ci ne réglé woo. pour man kooku réglé wul je te dis j'ai pas peur moi j'ai pas froid aux aussi pour dire ce que je pense ça c'est ma vie c'est ta vie ta vie ma vie c'est ma am nga sa àdduna. yow li nga def sa àdduna j'ai pas besoin de savoir mais man sama àdduna su ma neexee ne xam Sénégal lan moo leen yàq du dëgguwuñu tey koo ne jaay nga sa sa sa yaram lan dara mu nekk di na non jaay na ko yaramam diw bu subaa man la ñuy waxtaane mais man je préfère dire la vérité que dem ci suñu boroom mbooloo mi ñëpp taxaw àdduna ñëpp taxaw ngay am gàcce. Hmm. est-ce que nga. Mm-hmm. duma def loolu. Hmm. man ne dama jàpp ne ku jaay son corps au diable rek lawul man loolu laa jàpp. rek lawul waaw parce que boobu tey jii bu la jàmbul bi wowoon ne la venton jaayal ma sa corps di ko ko jaay. ñaata ah oh, yow yaa xam. yow nga jaayee sa bos sama bos rek. ñaata nga jaayee sa bos boobu da duggul ci sama bos. ñaata nga jaayee sa bos. bu da nga duggul sama bos rek. ñaata nga ko jaayee. da nga duggul ci sama bos tax ba je préfère xam ce qui est visible et invisible. waxoo ñaata nga ko jaayee de la je préfère xam ce qui est visible et invisible mieux que di toog di xam li li xew nii rek duma xam yàlla. Pamatar yow looy jeexalee ban message nga am. bon avant may dem si message parce que il faut ñu wax ko tamit il faut ñu ni mahazallah la Dieu nous protège di euh, dégg yenn wax yi tamit il faut ñu delluwaat si yàlla parce que Serigne Touba Khadim Rasoul ñun moom lañ topp suñu indignation bi. si enseignement Serigne Touba la si enseignement yontu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parce que yontu sallallahu alayhi wa sallam dernier message am bu mu bàyyi woon lan la ne soyez ni oppresseur ni opprimé ñu topp ko Serigne Touba comprendre lu euh, Cheikh Anta Diop doon wax ba muy naan quand on est en possession d'une vérité défends-la jusqu'à ce que tout le monde joue le même jeu citation dafa xaw a déformé mais voulait dire un peu loolu noonu. Pape Matar sa message lan la. non bàyyi ma continuer. non non le temps bi daf ñu temps bi daf ñu jàpp. Euh, lan mooy sa message dafa am xam nga tamit message bu am gën a am importance tey ay jullit nañu yenn wax yi buñ koy dégg te duñ si réagir dafay daf ñuy xaw a. non mais wax kay ki ko wax rek la engagé. Euh, yow lan mooy sa message. voilà sama message laay continuer noonu. léegi Cheikh Anta Diop wax wax jooju euh, Serigne Touba di ci continuer di ci continuer di ci xeex ba am lu mu am di xeex ak Iblis di xeexat seytaane di xeex tamit pour développement Sénégal tey jii ñun indignés yi loolu nañuy def dañuy xeex pour développement Sénégal continuer lool léegi may ma rek ma daaneel ci benn affaire mooy jeunes yu ñuy jàpp te nekk prison Rebeuss nekk jeune yu nekkoon si dëkk Colobane hmm. defuñu dara lenn nañu def mooy dëkk Colobane bisu euh, marche euh, xaw ma bisu rassemblement bu opposition d'alors doon organisé si nañ leen jàppee si nañ rey woon Fodé Ndiaye booy yi ñu jàpp leen torturer leen ñu torturer leen ba ñu sonn booy avoué crime boo xamante ne defuñu ko am na ay certificat médical yoo xamante dañ ko établir. waaw message bi lan mooy certificat médical dañ ko établir. certificat médical bi dafay def rapport ni jeunes yi dañ leen dañ leen dañ leen torturer léegi jeunes yooyu noonu nekk foofu prison Rebeuss boobu suñu message mooy nañ leen bàyyi ñu génn. très bien loolu leer na nañ euh, yow lan ngay jeexalee Fatou Matar. may may gërëm. Euh, tout la famille de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul di gërëm ñi nga xamante ne waa Kër Sëñ Touba yi ma jàppale fu ma mënti dem ci àdduna tey ñoom ñoo tax jeexale daal mooy gërëm waa Kër Sëñ Touba waaw Kër Sëñ Touba rek laay gërëm. ñu ngi lay ñu ngi lay gërëm yow Fatou Matar Mbaye. et je remercie mes aywa ñu ngi lay gërëm yow tam Pape Matar Diallo yaa jiite mouvement des indignés. waa kër euh, Serigne tubaa Khadim rasul ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaale sunu sëriñ sunu imaam sëriñ Abo Mbacke mi génn àdduna di ko ziar euh, njabootam yépp yëpp waa usine benn tali gii mu doon foofu doon jumaam ne woon fa imam ba di ko jaar soxnaam yi ñoom soxna Fat Ndiaye soxna Momi ñoom soxna maam jaara jaar ko mbooleemu taalibeem yi jaal ko it. mboolem ñi nga xam ni soppoon nañ ko di ko ñaanal yàlla mu fay ko alxuraan yi nga xam ni moom rek lañ ko xamee woon te dugal ko àjjana ba gën a kawe dig leen daje ëllëg bu soobee yàlla wasalaam